Euh, ànd bi ak télévision Futur Média merci encore aux partenaires ñëpp ñu ngi leen di euh, gërëm yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm euh, muy Orange muy TQG ak ñeneen ñi nga xamante ni ñoom ñoo jox confiance télévision Futur Média ay ca limal TQG ñoom tamit gis nañu seen taxawaay Touba Quincaillerie général savon la main nga xam ni période bi daanaka soxla nañu ko Prestige Déco itam ñoom kenn amul seen fay ak yeneen partenaires yi nga xamante ni fi ma koy liire xaw waaye yàlla baax na kon ma passe balle bi moom du Ndiaye bu ko defee mu àggali. Sow Ardo savon la main sant yàlla boutique. Prestige Déco chez Katia OCO ak euh, huile chef Aïda waa Wave ñu tamit ñu leen gërëm bu baax ak euh, pâte dentifrice bi nga xam ne bio lañ koy defaree muy euh, Jamila mu nekk lu am solo ñi nga xamante ni ñoom ñëpp partenaire di leen gërëm confiance bi nga xam ne jox nañ ko quartier général ci weeru koor bi yëpp en tout cas Pape Cheikh. voilà tey nag nabiyen yëpp jóg nañu ndax ki ñuy waxtaanee jara waxtaanee li ma suma xarit bi léegi wax. ma mami Mbow ñu ngi koy ndokkeel bu baax ñu ma effacé li fi jàll yëpp yar def tey mooy suñu bos waaw gën gi mindeef la moom la ñuy waxtaane tey euh, donc ñu ngi ndokkeel képp ku dib soppe nga xam ni euh, ñu ngi réagir euh, suma yaay Ami jàlloo nekk dëkk bu ñu naan cees jaxaw suuf Ami Diallo moom ajot ki ne Diouf yaat ma yaay Mohamed ñu ngi ndokkeel bu baax Adja Mareetu Jéey mu alaaji Buuba Jaxaw moom itam nee kontaan lool ci bis bi ñu ngi leen di bégee ci nii ñu àndeek ñun ci télévision Futur Média ak toute la famille Deyman ñoom itam ay shérif lañu seen maam la ñuy waxtaanee euh, maman Binta Deyman euh, moom it euh, bég na ca Baobab ak Hélène Thiam nekk fi nga xam ne ni moo di Angleterre maamam la ñuy waxtaanee ajot nen ne jaawara ak njabootam yëpp Nabou Bathily chéri bo mu baax mi borom Déco Rasoul ak ñoom tiiti ñoom it kontaan nañu xam nga période bi ji jëye jooju amoon Makka dafa fekk yaayu Nabou ajot nen ne jaawara nee na bi muy jéggat rek am na ku daanu jàpp ci tànk bi mu daal di yooxu ne yonent bi bu ma def nii man mii doom ju ma am yow laa ko tuddee sama doom bi ma fi indi sax doomam bu jigéen bi yow la ko tuddee seetaatal li ngay def de fekk tiit na nit ñey buuxante di daanu waaye yonent bi da ko teel a parce que c'est lui qui a toutes les clés mais Baye Cheikh bés boobu bës bu doy waar la wallaahi wallaahi am na ci mag ñoo xam ne ñi amuñu ay tànk wallaahi am na sama benn ndey bu naan yaa daane yaa daane mu ndumbe sans binte mm-hmm. mu ndumbe garmi aw may tànk yaayu faatu mbuub waaye nee na ma garmi mm. biñ may seet maa ngi ci kaw montagne wallaay mbay te aw may tànk wallaay amul tànk xawma lu ma fa yóbbu wallaay yaa ndóogu ne ko maa ngi woon ca wet ga te man aw may tànk wallaahi moo tax billaay eh, eh, eh, yàlla ñu jàll musul ci musiba allahumma amin yàlla ñu jàll musul allahumma amin waaw yonent bi nag kenn du moom kenn du moom de kenn du moom de kenn du moom de lépp ci jàmm rek la bu jubay tey daal ñëpp dinañ kontaan mm. euh, euh, sëtam baa ngi fii parmi yeneen sëtam euh, ki koy waxtaanee euh, tey nag gan gu mag la ñu am. ma bëggoon ñu tour de table d' abord ñu wax ci euh, invité quartier général bi El Hadj Ousmane Garmi. Baye Cheikh ñi ngi tàbbi nag fu rëy. Hmm. di jëm nag ci ku rëy mu di ko def. macha hmm. allah kii tey ñu war a jox plateau bii di Pape Hann mu baax mii toog bëtam yi taxul de ndax Amadou Mbaye Garmi bari xaar du ma tax a ngént koo sinu <laughs> kii toog boo ko nee jàkk nga xool ko rek da ngay liir rasulullah ci kanam. sallallahu alayhi wa sallam maa ngi ca waxtaan ak suma benn soppee bu ñaan naan Ali Niang mu ne Amadou Mbaye Garmi Pape Ade bëgg naa ko xam. ndax xam naa ne daal ci ñi nga xam ne nii seen xool dafa rafet te jekk. tubarkalla ci la bokk. te Baye Cheikh nattu naa ko ci ñetti mbir. bu ci nekk secret la. waaye boo ko seetee da nga koy xool mu impec. Mm-hmm. kon daal dëgg-dëgg tey. Pape Hann sa bës bi bile ci bës yi gën a mag bés bi def ci bokk. wallaahi addina yëpp ci nar a kontaan ndax yow soppe yi soppe yi soppe yi nga. yàlla moo ko dogal. ci baax gi macha allah ci yiw gi ci teraanga ji ci mën a def lu baax ti léeg-léeg bàyyi seex mu téye ci sa loxo bii tàbbal la ci foo xam ne fii sa teraanga ba bañ ko fay jox du ci bëgg ñaar dërëm. da nasal. waaw day nas te te te bàyyi seex sama mutu bay garmi ki lay karle daa bëgg nga jàpp. dëgg la de moom nag da lay karle. kon maa ngi lay ñaanal yàlla guddal sa fante sàmm la man de bég naa loolu tey allahumma amiin fekk si la nag ci sa plateau bi euh. ndax tey daal xam naa ne tey la tey xam naa ne sax bëggoon naa dem Pataar euh. ndax waxtaan naa say jeunesse waaye tey eh, nee naa su jeunesse non non bu ñu tudd Pataar nañ la bàyyi. jarul ñu jarul Pataar nag Pataar nag mën nga koo laaj ba xam yow. yamal Thiès rek yow <laughs> yow yamal Thiès rek. dafa amoon gàmmu gu mag bu mu defoon Pataar ànd ak xale ya. ca gàmmu Pataar waaw ca gàmmu ba xam naa loolu bu ñu ko waxul tey bu subaatoon mën nañu ci waxtaane bàyyi bàyyi ca mais daal invité nga daal ku baax. Uh-huh. ku yiw koo xam ne tam daf la bëgg. Uh-huh. gan gi fi ñëw nag tey sët la la ca maam sët da koy jël at bu jot moom la ñuy àndal ci bis bu mag bi mm-hmm. di Chérif Boubacar Aïdara Boubacar Aïdara nag day kenn ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Baye Cheikh soppi réew mi la macha allah macha allah macha allah ndax dëgg-dëgg am na yoo xam ne yile boo ko xoolee wala nga wala nga wala nag nga ne ko jàkk buñ ne la kii ci yonent bi la bokk kenn du ko werante mm. sant ay dara boole ko ci yëf yi de daf cee bokk au sang mm-hmm. deret jila la mhm. boo ne ko jàkk da ngay koy liir mhm. mën nga sant ay dara mhm. ay dara moom ay dara waaye ay dara nga liir ko gis ko xool xool xool nga ne ko jàkk macha allah ah, waaye xoolal lii tubaarkàlla ah, ah. tubaarkàlla te it nag Baye Cheikh maa ngi lay wax ne dafa am suma benn soppee boo xam ne bii moo ñu lee muy daam bajaan kooku baayam moo daan moo daan moo daan lu alaaji Abdou ma sa bëgg ci wàllu docteur moo ko moo ko toppatoo macha allah day bokkam respecté kenn ci moom waaye daal kii nga invité daal macha allah macha allah ci dëretu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu soppe bi ci la bokk bàyyi voilà ñu ngi ndokkeel taalibeem yëpp ak soppeem yi nga xamante ni saa yu euh, chérif yegsee ci plateau bi ñoom ñëpp euh, dañuy yëngu macha allah donc yàlla na euh, sunu borom def ba lépp lu ñu fas yéenee waxtaanee ci guddi gi dugg ci xel yi dugg ci xol yi ndax loolu rek la ñuy la ñuy la ñuy ñaan xanaa rek balaa ñuy nuyoo ak gan njabootam gi ak gan yi oustaz Pape Anne euh, balaa ñu lay nuyu euh, gis nga gis nga ni mu méttee de suñu invité yi la ñuy daj de oustaz balaa ñu leen di nuyu dangeen di xaar lu yàgg nag waaw na nga xaar xaaral xaaral tuuti nag ñun dañu am programme émission bi dafa am nu muy demee euh, alaaji Pape Anne bu télévision Futur Média moom la ñu invité tey na nga xaaraat tuuti daal waaw invité yi yii daj <laughs> <laughs> Oustaz Assane euh, ci ay réponses yoo xam ne ni bëgg nañu ko am très rapidement euh, murum koor mu dum koor mm. mag ñu bëri am na yu ñu ci jàngalee version yi day différé mm. mais bu ci nekk am na njëriñ mm. naka la ko war a sàkkee naka la ñu ko war a génnee euh, damay tënk question yëpp rek pour gagner du temps puisqu'il est déjà une heure du matin am na ku laajte léegi nii ne ndax mën na ko Orange Money mm-hmm. et la personne a dit que c'est une question très sérieuse mm-hmm. dafa bëri ñu am soxna mm-hmm. ak njaboot mais xamuñu nan la ak naka la jërëjëf Baye Cheikh euh, li ñuy waxtaanee di muddum koor si tënk rek dafa nekk la nga xamante ni Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ñuy waxtaanee borom guddi gi tey nga xam ne moom mooy suñu cëslaay si diina ji moom la ñu war a roy hmm. moom mooy source bi moom moo ñu ne li nga xamante ni moom moo di zakatul fitri dafa nekk la nga xamante ni lu war la si jullit bi nga xamante ni suñu borom subhanahu wa taala def na mu fekkee li nga xamante ni moom moo di weeru koor hmm. bu ñu demee ba si mujjantal gi si jamono bi ñu toll nii kuy génn mu koor war na fekk nga préparé ko su fekkente ne mën nga ko ngir nga xamante ni suñu borom subhanahu wa taala dafa dogal ne seen loxo jotul seen gannaaw Baye Cheikh jamono Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ko doon defe si saa saa tey jii ni ko borom xam-xam yi tënkee évaluer ko mooy lu mat 1 kilo cent jàpp 2 kilos ñoom pepp lañ amoon ñoom tàndarma lañ amoon ndax moo gënoon bari si li nga xamante ni moom lañ doon dundee ak ci jamono Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom xam-xam yi nag li ñu wax mooy réew mu nekk la ëpp lañu fay dundee ñu jël ko génnee ko boo jëlee Sénégal tey li ëpp lu ñuy dundee ñun ñëpp xam nañ ne ceeb la da ngay jël ceeb. un kilo huit cent wala deux kilos par personne si ñi nga xamante ni yow yaa leen ilif di leen dundal ñii képp koo xamante ni yow yaa koy dundal nga man ko yow yaa ko war a génneel li nga xamante ni moom moo di moom moo di muddum koor bu ñu demee nag comme jamono day dox tey jii boo jëlee ki nga xamante ni dafa yeyoo muddum koor wala nga jël ko war ko ko jox ñëpp dajale ceeb bi jox ko ko te amul la nga xamante ni moom la war a demee marché ngir ndugg ngir jënd ndawal ngir ñawal ay doomam wala soxnaam wala moom ndax bés la ba nga xamante ni dafa nekk feetu jullit ndax sallallahu alayhi moo ñu xamal ne jullit yi ñaari feet lañu am muy korite ak li nga xamante ni moom moo di tabaski te dafa wax ne bés boobu warul benn jullit ñu koy romb si mbedd muy taxaw naan fii sabilillah lu waaye am wala ku may dimbali ngir yàlla si loolu la yenn borom xam-xam yi sukkandiku ne koon képp ka nga xamante ni mën nga ko génnee xaalis nga calculer par exemple kilo ceeb yow bi ngay dundee lu muy jar bu dee kilo 500 la nga génneel sa bopp 1000 francs ak ñi nga xamante ni ñoom nga njaboote yépp te yow yaa leen di dundal nga jox ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko yayoo bul ko jox yaa ma neex wala sama dëkkandoo la wala sama xarit la ku ko yayoo mooy ñi nga xamante ni suñu borom subhanahu wa taala lim na leen si alquranul karim mu nekk juróom-ñetti catégorie de personnes yi nga xamante ni ñoom ñoo yeyoo li nga xamante ni ñoom ñooy asadaqaat wala li nga xamante moom moo di zakat wala zakatu li nga xamante ni moom moo di alfitri mu nekk ñi nga xamante ni miskin yi ak faqir yi xam nañ leen ku nekk koñ ba nga dëkk xam nga fa nit wala ña nga xamante ni xëy na yeyoo nañ loolu donc Baye Cheikh loolu la nga xamante ni la Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam digle solo si nag mooy rëcc-rëcc njuumte yi nga xamante ni moom la ñuy def ak manquement yi si bëccëgu weeru koor léeg-léeg nga xool loo warta xool léeg-léeg nga déglu loo warta déglu wala nga laal loo warta laal wala nga dem foo warta dem wala nga wax loo warta wax nee nañ yooyu mooy fànq mooy fatt rëcc-rëcc yi nga xamante ni moom la jullit bi di def si biir weeru koor bi kon zakatul fitri muy muddum koor dafa nekk la nga xamante ni lu war la ndax sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo ñu ko jàngal te moo ñu waxoon ne ma ataakum rasulu fa xuduhu wa ma nahakum anhu fantahu alayhi wa sallam leen si def si la ngeen man lu mu leen tere na ngeen ko bàyyi moo taxoon sallallahu alayhi wa sallam ne ida amartukum bi amrin fatu bihi su ma leen digal leen mbir na ngeen si def li nga xamante ni moom moo di seen kéem kattan Baye Cheikh ki koy def nag day nekk jullit waaye itam day nekk ka nga xamante ni suñu borom subhanahu wa taala def na mu àttan ko si wàllum koom ak si wàllum koppar ngir mën a dimbali ñi nga xamante ñoom ñoo di fuqaraa yi ak masaakiin yi ba bésu korite muy bésu fet du ñu gis benn jullit muy tàllal loxo di yalwaan ñaan wala muy sàkku li nga xamante ni moom moo di ndimbal ndax bés la ba nga xamante xol yëpp dafa war a féex ñëpp dañu war a kontaan ñëpp dañu war a bég la ba nga xamante ni suñu borom subhaanahu wa taala moom moo def weeru koor bi jeex si weeru ngëneel weeru barke waaye itam Baye Cheikh weeru solidarité ak weeru yërmande am na ay bis yoo xamante ni mën nañu koo woor bu weesoo weeru koor mhm. euh, ay naafila la waaye dafa mhm. ci am itam ay bis yoo xamante ni woor ko baaxul la mhm. waaw lu mel ni bésu korité kenn du ko woor ak bésu tabaski ndax sayduna muhammad dafa wax ne bu koor jeexee bésu korité dafa xaraam si jullit mu woor ko te bu ñu doon julli xëy na contexte bi mayoo ko fi mu nekk nii si ñenn ñi bu ñu doon julli ji sax balaa ñuy dem si jullukaay bi bésu korité nañu dog li nga xamante ne moom moo di koor gi maanaam xëy jëfandikoo dara euh, xewlu door dem si jullukaay ba waaye bu dee période tabaski moom sallallahu alayhi da daan def bu xëyee du lekk dara bu demee ba julli ji ba ñëw jël si res bi bu ñu rendee ba pare mu daal di siy mos loolu tamit sunna la rek waaye du nekk bu ñu ko tuddee koor waaye comme sunna la sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ko doon def rek ñu def ko bàyyi cheikh waaye itam muy juróom benn fan yi nga xamante ni ñoo moo topp si korité ba weeru sawaal bi jeex ku ko si man woor juróom benn nga def ko ndax sallallahu alayhi wa sallam moo ñu jàngal ne képp ku si woor juróom benn fan si sawaal muy weer bi topp si euh, koor gi nee ne mel na ni yow woor nga sa giiru dund gi yëpp bàyyi cheikh mu ngoog euh, jërëjëf yaa oustaz euh, defe naa tontu yi leer na donc def leen seen wareef ci li nga xamee ni moo jëm ci muurum koor amit ñu ko tuddee muddum koor orange money aussi c'est possible c'est ah. possible mën nañ ko yónnee bu fekkente ne da nga ko bëgg a jox ka nga xamante nii xëy na sa koñ gisuloo fa kenn mhm. te xam nga ka nga xamante nii yayoo na ko boo ko yónnee rek bu si jotee rek jëfandikoo ngir mën a bég si bés boobu Baye Cheikh mu ngook ubbite gi nag dañu koy jox ngañ mbaay suñu euh, xarit sama sama sama sama suñu soppee voilà moom la ñuy jox daal mu ubbil ñu léemul ñu euh, jotaay bi laataa ñuy àgg ci beneen studio boobu nga nekk Oustaz. Mhm. Euh, di fa fekk Oustaz Pape Anne mu euh, Seydina Muhammad euh, fekk fa itam sëtu yonent bi di bu euh, Chérif ay Aydara balaa ñuy àgg foofu bay jëlaat itam ci ay ndimbal pour baaxee ko téléspectateurs yi alaaji ngañ ñu bàyyi la nga léemul ñu jotaay bi yubasiru qawmahu bi annaka taatiqa man bi nubu قبره ما زال الجنان سعروه وتزمل وتزمل بالمآسي والجمال يا رسول الله وتساسه من كم كم كم كمحبين قاتتيم قتتيم ومشق سيد الخلق قترا أسرف الخلق وعذور الله قاتأيم وتساسوا بل نكام Abdou Aziz Mbaye Baye Cheikh ñii ñoo doonu daagóor Baye Cheikh ñii ñoo doonu paate mi nga xam ne tubaarkàl la mooy sunu mooy mooy sunu bàyyi sunu soppe ba Malick Mbaye gëm sa bopp ñii Baye Cheikh ñoo doon Alaaji Mbaye ma nga xam ne tubaarkàl la moom meññ Aziz Mbaye maam faam Baye Cheikh ñii boo déggee nu way day ni muy jógee ci seen xol noonu lay tabbee ci xol doomu aadama yi su si daaj Malick naa ne génn seen maam yi maam yi ñii ñoo koy dar bu Seydou Boubacar Massaane génn maami gor yu baax yi ñoo leen di dar boo laa laaj Abdou Massaane génn maami gor yu baax yi ñoo leen doon waaye nag dëgg-dëgg maa ngi lay wax nag sama doom jooju ngañ baay <laughs> moo doonoon nag gawlo bu mag ba nag ki nga xam ne kii moo meññ njeng njaay gawlo ki nga xam ne tamit tubaarkàlla moo meññ tamit ki nga xam ne kii mooy naar mbeng gawlo bu mag ba mooy ngañ baay moomu toog su woyee rek xel yëpp day dem ca mag ña ak xale yi ko daal daal euh, waa ji daal dëgg mhm. tey ji am na bruit tey na bruit te pare gu ñoo ngi moom ci bruit parce que dañu bëgg bu ñu euh, euh, tàmbalee waxtaan bi rek dog dog yi bañ bëri waaye ngañ rek ñëwul mm. dafa am suñu beneen soppe boo xamee ni itam dafa ne mënul woon ñàkk ci guddi gi donte bi ñu koy programmer ren mm. ci début saison bi dañu nekk ci général bu ñu restreindre rek mm. la ñuy organiser moo tax soriwuñu xale bu baax nekk invité waaye bu ñu dee waxtaanee ku tedd ki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañoo baaxoo. ki koy fekkee di ko jiite lii euh, àddina waa àddina naan présider. waaw sëtam moo koy présider. dëgg la waay di Chérif Boubacar ay Aïdara alxayri. Mm. waaye sunu xarit euh, Fallou Sekkit euh, dafa bokk ci ñi ñi nar a bégal tey ci guddi gi. Mm. moom it bëggoon naa mu mosol ñu tuuti rek. Mm. ci loo xamee ni mën na seddal xol comme li ngañ def léegi. moom it mu am lu mu ñu bégalee. laataa ñuy àgg ci plateau boobu donc le temps ñu koy jox micro di ma ko organiser foofu fàttaliwaat mbokk yi ne ndimbal yaa ngi tege yéen ko moom ku dugg ci biir émission bi man sax mën na maa dem ci ginnaaw ngeen di woote hors antenne ci numéro yi affiché wu ci suuf écran bi donc mun ngeen bañ bàyyeeku euh, woote 88 628 22 22 ak yeneen numéro téléphone yi nga xam ne ñu ngi affiché wu ci suuf écran bi mën na maa joxe ñaar fukk comme mën na maa joxe ñaar fukk ak dund weer ça dépend nag de kiy woote. Hmm. bu dee euh, sama yaram tàng na ci loolu mën naa koo joxe addiya yaa rasulullahi la ñuy joxe fii ba fajar ci télévision Futur Média à de ndimbal yi itam. sànq reportage bi euh, Fati Dieng wone am na suma jigéen boo xamee ni ñoo bokk benn yaay ajut Marème Fall xam nga euh, tata Marème Fall euh, moo jiitee association des sages du Sénégal depuis des années moo ànd ak ñoom tata ay de moo ànd ak sages yu mag yi nekk Sénégal moo doon ajatu Ariette Ndiaye mm-hmm. sage-femme bu mag ba nga xamee ni ma nga fekk baax ndar yal na yàlla yokku leeram ndax jigéen ju yiw ju baax la woon donc tata Marème Fall ñu koy ndokkeel sama yaayu bopp la fu mm-hmm. ma jaaxlee rek man maa ngi ci moom doom leen madame Coulibaly euh, mooy major euh, bu cardiologie bu CTO. donc moom nee na am na équipe boo xamee ni jóg nañu pour jàppale euh, ki ñu wane sànq mu amee cancer du sein donc mën nañu ko opérer gratuitement. voilà donc loolu ñu ngi ciy sant alhamdulilah donc comme urgence la xam naa ba nu xëyee rek mm. nañ ci jublu mm, euh, bu ko defee euh, ma jigéen madame Koulibaly nga xam ne ñoo bokk yaay Mariam Fall mm. euh, mën a jàpp ci loolu moom ak équipe yëpp ñu ngi leen di gërëm merci d'avance en tout cas jërëjëf ñu ngi koy remercier bu baax Pape Cheikh dañoo nekk ci weeru promotion te fii la ñuy indee ay solution mm-hmm. moo tax da ciy baax ñu leen di indi cas yu mel nii mm-hmm. sànq gar mi mi ngi koy wax ñi feebar bëri na mënuñu matale demande sociale bi bëri na torop mm-hmm. waaye xam nga yu mel ni Pape Cheikh comme ni ñu koy defee saa su nekk dañuy am solution kon ñuy jaajëfal bu a euh, xam ne euh, ki nga xam ne moom moom lañu indi tey muy jaxu saal ñu ngi leen di remercier bu baax a baax Pape Cheikh et puis jaxu la fanweer ak ñett rek la am tey ak incha allah dina wér mm-hmm. euh, jàpp madame Coulibaly merci guddi gi tey ma waxaat ko rek ku fi waay waxtaane ki ñuy waxtaane jara waxtaanee ndax euh, euh, euh, moom moo moom moo moom lépp moo gàddu lépp moo yore caabi yëpp kooku mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pourtant liñ ci xam lu néew la te euh, wax jiñ ci wax euh, euh, mën nga jàpp ni bëri na moom la ñuy waxtaane tey donc nabiyen yëpp ñu ngi leen di ndokkeel suñu ay jur yu nekk New York Faben di ndokkeel bu baax notre oncle El Hadj Pape ak toute la famille Thiam Ramata Thiam Cité Fadia maman Awa Thiam moom itam nabiyen bu mag la elle en France Mboña Konaté moom suñu mag la maam Sira Thiandoum euh, ma nga nekk ruelle Malmaison euh, ca France moom itam taalibe Cheikh Akan la xam naa ni tey euh, bu ñu dee waxtaanee ku tedd kii di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xol bi dina sedd ñu nit li ñu commandoon ci Rapidos fukki kilo ya fukki kilo dibi ak 10 pizza yegg si na parce que guddi gi tey dañ naar dem ba fajar waaw côtelette la yi fi géwél rek la commande ak rapidos euh, ça été livré euh, donc on va en profiter di xëdd di déglu waxtaan wu neex wi ñu jagleel euh, borom barrière or ba ca Médine sala tàkku xaagaan bi Pape Birima Mbuub bàyyu màgget moom it ñu ngi koy bégal bu baax soxna faat Mbeng moom itam doom la ci ajot kinaab du cuun mm-hmm. ak ki nga xam ni moo di soxna Bali Muntaxa malheureusement dafa càng gànnaar mais ñu ngi koy xalaat Euh, Tata Fa Mbow ca New York ak euh, nabien ya fa nekk yëpp ñoom itam ñu ngi fetasu euh, te naan kenn du Seydina Muhammad kenn du maamu Boubacar Aydara waay waayjur la tout tànk la ci àddina waaye suma jur la xam naa li tax ma wax ko donc moom it mu bégal ñu ndax xam naa ni bu ñëwul woon sax sama xol du neex tey mais tey defal na nu mbégte dellusiwaat fas yéene ànd ak ñun ci guddi gi madame Seck soxna Aydara soxna Wali Seck moom it sët la Euh, ñu ngi koy ndokkeel bu baax euh, di ziar kull koo xam ni rek danga bokk ci njabootu Seydina Mouhamed euh, ñu bàyyi fàllu sekk moom it am lu mu ñu mosal rek balaa ñuy dem ci beneen plateau bi kon Fallou yow rek lañuy déglu rahmaani rahim wa sallallahu taala ala wa mawlana muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يوم مولد ما أكسسنا يقيني للجنة ما ليس يوم رسول ليتنا زار أحمد يقيني إلى الجنات ما ليس يحمد رسول كريم بيتنا زار أحمد وخا رسول سفيح في البرايا محمد محمد المختار لا خلق مثله لأمدائي خدوت والعود أحمد أتاني bismillahi jammat xibaado bashirun habibun wal aza qablu muhammadu laxat jaani fil bari sabuna bil wara xala kulli maxluqin bihi xalqu tasnidu madihi rasulullahi ni xaada madlabin wali laysa yanxoo dahra waazid nu fannidu widaadi li rabbi saa sukoorin ala nabi rasulul kariman misluhu laysa yuladu rasul سكور على النبي ولي ليس ينهو دهر وازد نفند لقد معانا من ظن المقفى محمدا يحاكي وليدا قد مدى أو سيولد دعاني إلى مدح سفيه محمدا amaani wa man lam yahwani fa hawa yudradu alimtu al abraari wal baari wal malaa bi anna al muqaffa sayyid al xalqi mufradu iza ma madatul mustafa mustafa نلت فجعة أكون بها بشرى لمن دام يسجد مدحت جواد الباسر البار مسبدا ومن جوده علم وأمن وأسجد أحيد إذا ما زار أو زير سرمدا بدا محجل الحب الذي ليس يسجد كريم إذا وجهت غاد للمنى ببسر وتامني ومولاي أعبد سهاما أبا دينا الذي دين والعدا وخاب الذي ربا ولا ليس يعبد سكوري ربي بامتداء محمدا عليه سلام الله ما دام يحمد مد النبي المنتقى سعد الى بيت الاله ناس واحب الاله هب نبي ين إلهي زورا زاد إلى المدينة المنورة محمد صلى عليه مسلما بدت لنا حلاو سيدنا محمد محمد فرد يفوق تسنيا وفاخ جمال والحدايا مهنيا درجة المختار ndeke daraja moo ko moom darajatul muxtaari darajatul muxtaari darajatul muxtaari na ñëpp def ni ñu magal Seydina Muhammad darajatul muxtaari ibil mursile tilaaxu darajaati rusuli kullu nabiyun wa rasulu yatbo xalfa wasilati huwa almutabaw ahmadun almaayi maal masaa wali siwaana saaxa mana saa kullu nabiyin wa rasulu yatbo alfa wasilati wal mutabu ahmaduna al maay maal ma asa wali siwana sa xaman asa li ahmad al muxtaari ma lam yakuni wala yakun abadan li mumkini la soosu ko abadan fi kawni jaaral badin ajaban lil kawni macha allah Cheikh Fallou Seck bégal nga ñëpp ci ubbite rek la ñu toll de tàmbalee guñu jotaay bi ku fi waay waxtaanee ki ñuy waxtaanee jara waxtaanee mooy gën gi mindeef yàlla mi ni sàkk moo ni moom moo ñu gën ñun ñëpp. Mm. moo tax waykat ba ne ko ne woon ku ma gën ma gën la géer. waaw géeri géer ñaañ ka ko feelu ne ko géeru géer ñaañ gi. ma nga Medina loo mën a woy lu sa baat neex boo ko woyul sa woy day niil. loo émission lu mu neex neex neex boo ko waxtaanewul defe naa programme ba sax day niil te bëgguñu benn yoon programme bi niil ndax fexe na nu ba instauré fi loo xamante ni ab couleur la dans les familles dans les mm. médias euh, lool mbay waaw li tax nag réew mu wéetul euh, quartier général la te loolee ndamu ci waaye sa yëf bu la ko kenn dul waxal danga koy waxal sa bopp voilà ku gis ni nen ni nen a ngi bu woon nag quartier général bi daal defe naa dëkk bi dina wéet. télé yi dinañu wéet rajo yi dinañu wéet. Ah. internet dina wéet grand place yi wéet kër yi wéet. Ah. ndokk nag ba euh, ñu leen ko créelee ji leen ko baaxee ginnaaw bi ñu waxtaanee mag ñi donte am na ñu des bu ñu dee tëj nag du tey mooy final bi ëllëg la waaye bu ñu dee boucler euh, ci li nga xamee ni moo jëm ci ñu tedd ñi. baax na ñu waxtaanee euh, maami Chérif Boubacar dara kon Oustaz Assane ñu euh, fekk la foofu ci studio boobule gan yu tedd yaa ngi Oustaz Pape Hann nag man dootuma wax ci moom. ndax hmm. defe naa bu ñu organiser woon euh, comme ni ma ko organiser ci cinq minutes de Pape Hann man ak waa Canada yi ñoom Alice Newman man damay doon président fans club rek Oustaz Pape Hann. Hmm. voilà donc Baye Cheikh. Hmm. balaa ngaa jàll sama jarbaat bi woy léegi. waaw Fallou sekk di Fallou Seck dafa am jigéen ju baax. bu ñu naan Faat Njaay hmm, mbuub mm-hmm. ak jigéen ju baax ju ñuy wax wàlli yàlla mm-hmm. ñu seen maam moom moom la ñu moyoon gor ba mm-hmm. kii soo déggee rek tubaarkàlla fi mu jaar Seydina Ahmad sallallahu alayhi wa sallam jaar ko Xaadimu Rasuul sallallahu wa sallam da ngay xam ne daal dëgg-dëgg doonu rek moo dëgg. dëgg la de ci xale référence ci la bokk. Baye Cheikh ba pare man li ma sopp ci ñoom. civilisé civilisation réglé Baye Cheikh. foo tabbi rek na nga fa tabbi noonu la lay terale. waaw ah. ah. xale yi nag xam nañ ko. dañu bëgg seen bopp mën a toilette. waaw ba pare foog seen bopp du ñu dem ci jotaay ba kenn xeeb rek déedéet. Ah. te boo leen séenee rek may dañuy def parfum bu baax. ba pare sañ nga dem ci ay cant ak conférence sax foog ni ñoom ñoo organiser. billaay billaay nekk nekk ñoo war a sikkar man li ma nekk ñoom nga ñii yàlla baax na. wàllu <laughs> sekk yàlla na yàlla sàmm leen dëgëral leen wéral seen i baat kon euh, yaa Oustaz ñu euh, tàmbali euh, ma bàyyi la d'abord nga ubbi nuyoo ak gan yi. jërëjëf Baye Cheikh am mbégte fa tabaarakallaahu macha allah. di sant yàlla bu baax si li mu ñu yemale si guddi Seydouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fii ci télévision Futur Média ci quartier général nga xam ne yaa ngi koy junj sànq ba léegi kii moo jar a waxtaane ah. kii moo jar a kañ kii moo jar a tagg ndax ku ko tagg nga kañ ko wala nga waxtaane ko rek fekk na borom bi subhanahu wa taala moom def na loolu démb kon ñun du ñu def lu dul feelu borom bi subhanahu wa taala waaye itam ak mag ñu baax ñi nga xamante ni fa tabarakallahu macha allah ñoo fexe ba diine ji wasaaroo si réew mi boo jëlee tey ji nii suñu maam euh, Seydil Hadji Malick radiyallahu taala anhu euh, moom ngay waxtaane sañ naa wax loolu maam Cheikh Ahmad Bamba radiallahu anhu maolana Cheikh Ibrahim Cheikh Saadu Abihi ba si Seydina Limaamu Laay mi nga xamante ni moo tëdd fii si Yoff jàmmalaay moom la ñuy waxtaan ndax tey jii nii li nga xamante ni mag ñi bàyyi nañ ko fi yëpp kenn moo tax muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu téye suñu loxo ñun ñëpp ommat ñu jébbal ñu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam soppay oustaz Pape Hann mi nga xamante ni tey jii moom la ñuy dalal muy ganu quartier général fas yéene waxtaane ki nga xamante ni moom la tuddee ku sakkan ki nga xamante ni du jeex mukk du xewwi te soxlawul promotion moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu ziar bu baax xalif yi nekk ci réew mi yëpp yëpp yëpp jël ziar bi ak nuyoo bëgg yëpp tekk si suñu loxo wayjur suñu sëriñ suñu rëpp ki nga xamante moom moo di Seyid Aboubacar Sy Mansour xalif général de Tidiane di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi lool lool lool ak mboolem kilifa diine yi nga xamante ni ñoo nekk si réew mi bu euh, Boubacar ñu ngi lay nuyu di la ziar ndax ki ñuy waxtaana si biir xol yi la nekk damay waxtaana Chérif Mouhamadul Amin Laay ibnu maam Babacar Laay ibnu Seyna Limaamu mu ne ma loxo xool bu mu dugg. bu dul loxo yàlla rek. xol bu mu dugg rek nit kaa ngi si danger. xool loxo boo si fekk te loxo yàlla rek mooy xotti nañ xolu nit ka nit kaa ngi si diggante dund ak dee ñu xool nuñ koy mm. sauver mm. waaye nee na loxo yàlla rek mm. moom mooy dugg si xol def fa dara nit ki xëy yeewu yëg ko cofeel bu nga xamante ni moom lay am si nit ki loolu moom ñu dal si rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye nee nit moo yeewu dootul hmm. yëgati dara fekk yàlla moo jël loxoom dugal ko sa xolam hmm. rocc sa la nga xamante ni hmm. moom la say rocc ba dootul sentirati dara yàlla ñu si yàlla musal ñu koy ziar bu baax moom laay maxtaar yow ñu bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateur yu di si kàddu gi ñu jël sa kaw ndax dañ la war a xoole sa maam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye jataay bi moo ni demee te sa maam ji nga xamante ni moom la ñëpp di tiitaroo tey moom la ñu fas yéene waxtaane Chérif Boubacar ñu bàyyi la nga nuyu téléspectateur yu télévision Futur Média alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashraf almursalin sayid alawalina wa sayid alaxirin alhamdulilahi xaqa xamdin alhamdulilahi awalan alhamdulilahi axiran alhamdulilahi zahiran alhamdulilahi batin الحمد لله هو قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم سيد الأولين وسيد الآخرين نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم النبي الفاتح النبي القاتم النبي الهدى shafiuna xabibuna saydina muhammad salallahu alayhi wa sallam wa ala alihi altahirina mutahirina wa ala asxaabihi alkiram wa ala taabicina lahum bilislaami walimaani walixsaani ila yowm laa yanfahu maalun wala banuun illa man atalla bi qalbi salim ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moom lañ wax moom lañ darajalee jataay bi mhm. waaye di yëg ne jataay yëpp jataayam la dëgg la jamono yëpp jamonoom la mhm. moom rek la yàlla wax ma arsalnaak illaa kaafatan linnaasi mhm. yàlla daf ko yónni ci ñëpp yónni ko ci fépp yónni ko ba faaw moom seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñ ko nuyoo ñoo ngi jël suñu kàddu di wax ne moom mooy kan mooy yonent bi nga xam ne mooy yonentu yërmande mhm. mooy bi ubbi lépp mhm. bi yàlla nekkee ci réeram ba ci nëbboom ba kon dëkkantaam na uxraaf yàlla bi mu bëggee bind Seydina Ahmad sallallahu alayhi wa sallam la bind kon moom moo ubbi mbir yi mhm. mooy tàmbale mbir yëpp moom moo ko wax ci ay waxam ci ay xaadis yu bari wax na Omar xam nga may kan Omar na mu ne ko xalaqallaahu awwala nuuri min nuuri xalaqallaahu kulla shay'in hmm. na salaat bu tàmbalee rek ne yàlla man la bind ci man la bindee lépp lu mu bind sallallahu alayhi déjà loolu ci loolu ci suñu xarit nar a ñëw hmm. loolu rek eh, junju la ci kan mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di julli ci moom mi nga xam ne ti moo tëj hmm. mooy xaatimul anbiyaa wal mursalin moo tëj yonent yi waaye nag mooy seen jiit moom moo tëj yonent yi Mm-hmm. waaye mooy sa ilimaan mm-hmm. ci riñaan bi ngay xam mooy sa ilimaan ndax ñëpp lañ dekkil ci ginnaaw baytul maqdis mm-hmm. mu jiti leen ñaari rakka waaye moom mooy yonent bi nga xam ne moo yonent jub yonent salaa moo indi jub bi nga xam ne soo ko bëggee waxtaanee li ngay njëkk def mooy da ngay gëlëm ci moom tax ngay gëlëm parce que war a fa xanaa lekk si karek yàlla moo ko yëkkati ci ci moom yonent boo xam ne lu mu def hmm. yàlla ne moom moo ko def yu na hmm. innamaa yubaayi'unaka hmm. innamaa yubaayi'una allah yàlla mu ne bi ñuy ñuy jaayantee ak moom ci suuf garab bi taxta sajara yàlla mu ne jaayantewu leen ak Seydina Muhammad ak Muhammad man yàlla ngeen jaayantee yadullahi fawqa aydihim yàlla mu ne sama loxo man moo nekkoon seen kaw loxo yi te ñoo teggoon seen loxo yi ñoom ñëpp loxo hmm. yén su jël loxo bu tedd bi teg ko ci kaw loxo yi yàlla mu ne yadullaahi fawqa aydihim sama loxo man yàlla moo nekkoon seen kaw loxo ñu nekk ci xare hmm. xare bi métti yu na salaa salaam jël suuf la wala xeer yu bëri ci loxoom sànni ko ci loxoom bi hmm. yàlla wax bu mu sànne wa maa ramayta iz ramayta walakin allah rama yàlla mu ne sànni am na wala sànni woo de bi sànni amee walakin allah yàlla ci boppam moo sànni macha allah bi nga xam ne yoon salaa sallam soo ko soo ko bëggee waxtaanee mm-hmm. te moom lañ nar waxtaanee tey mm-hmm. dafa nekk baxru géej boo xam ne mm-hmm. amul tefes amul yon salaa sallam amul fu mu tàmbali am fu mu yem macha lu tax ndax moom mooy kii séddale sallallahu moom moo ko wax ci làmminam mm-hmm. mm-hmm. allah huwa almuxti wa ana alqaasimu ma sha allah yontu yàlla xam salaam mu ne yàlla mooy maye sallallahu lépp yàlla mu am lépp waaye man muhammad sallallahu man maay séddale lépp moo tax képp ku sédd leen salaasa moo la sédd ñoo ngi julli ci moom da julli ci waa këram xam ne ñu ñu laab lañ ñu ñu laabal lañ moo moo jaxaloo moo jël décision ne moom moo laabal ahlu bayt rasul sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. di nuyu ahlu bayt rasul yëpp di leen jiital leen yàlla jiitalee mm-hmm. yéen yontu moo xam ne xadimu xoreysin jiital leen sama waa mm-hmm. di nuyu waa kër Cheikh Abdou al Fatih al Khatim ki nga xam ne moom yun salaas moo ko wax ne anta wali di xaqan mm-hmm. yow yaay yow sama doom dëgg nga mm-hmm. ñu ngi nuy waa Cheikh Tidiane Chérif yëpp ñi mm-hmm. nekk ci adduna bi yëpp ci Fass ak ci Algérie ak fii ci Sénégal xam ne am nañ chance am nañ ahlu bayt yoo xam ne waa Cheikh Tidiane la dëkk ak ñun fii ci Sénégal waa kër Cheikh Mahamadul Habib Abdoul mooy xalifaam tey di nuy waa kër Cheikh Saad Bou di nuyu waa kër ñëpp ñu ahlu bayt rasoul xam ne ñun ñun bokkan ñeme naa toog fii oustaz Pape waxtaan représenté waa kër bi mhm. ndax ñu ñëpp ñoo bokk ah, yaxyal kabil xalxami mhm. koo bokkuloo fu bokk nga ko moom ci Idris al Akbar mhm. donc su ma fi toogee nekk seen bëgg leen représenté toogu ma fi toogu toogu waaye représenté leen dama toog toogu waaye nekk seen xaadim nekk xaadimu ahlu bayt rasul yëpp sallallahu alayhi wa sallam ñu julli ci ay sahaaba yoon sallallahu sallam ak ñu topp ci ñoom ba bis bi nga xam ne mm-hmm. yàlla du xool alal yi mm-hmm. du xool doom yi mm-hmm. day xoole ku ko dikkal ci xol bu set macha allah sallallahu alayhi wa sallam nuyu Sénégal di nuyu suñu kilifa Mawlana Cheikhul Xayr yi nga xam ne moo ñu nàmpal ci yonent bi wax naa ko fi euh, yar ñu diggante Mauritanie Boubacar ak ci fii Sénégal Medina Cheikh Ibrahim mhm. du nuyu xalifa Cheikh Ibrahim Cheikh Tidiane mhm. Niass ak xalif eh, imaamul akbar Cheikh Tidiane Aline Cissé mhm. di nuyu waa kër eh, Bamba suñu baay radiyallahu ta'ala Seydi Hadj Malick ak Omar Foutiyou Tall ñi xam ne eh, quartier général bi dafa xaw wuteeg yeneen yi macha allah foofu tuuti lu tax daa mel ni mbir yi dafa gën a leer ci mag yi ndax xam ndax seetlu Sénégal wala adduna bi seetlu nañ loolu ku fi ñi fi jaar di waxtaanee mag yi. Mhm. ku ci nekk dégg nañ lu bees wala xam leneen loo xam ne. xamee mhm. nañ ko nuñ ko xamee woon. Mhm. ku ci nekk nag ñuru Seydina Muhammad ci mag yi. sallallahu alayhi wa sallam misaal bu laay wax ku ci nekk ku ci waxtaanee. rek mel ni ne dañ lay waxtaanal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi naa jël ñaari exemple rek doo eggale sama nuyoo moo bi ñu waxtaanee Cheikh Omar Foutiyou radiyallahu anhu bu ma gënee àdduna. daf ma fàttali yonent sallallahu alayhi wa sallam Fatima ñoom ñoom ñaar ñëpp dañoo judd rek ànd ak weer bi woor. macha allah seen waajur yi laab xëy julli ànd ak ñoom julli ànd ak woor ñoom tamit. macha allah waxtaan Seydi Hadji noonu. Cheikh Ahmad Bamba su waxtaanee moom noonu. Cheikh Saad Bou su waxtaanee maamam bi day mel ni ngay waxtaanee. ci ay karaama donc ñu ngi rafetlu di kontaan bu baax ñu fi jaar. Mhm. borom xam-xam di leen ndokkeel. wax yombul. rawatina ci mbooloo rawatina lu mel ni télévision mhm. rawatina nag émission bu mag mel ni carte générale nga xam ne mhm. adduna bi yëpp ñoo ngi koy déglu ñoo koy ñoo koy seetaan ñoo ngi gërëm ñi ko ñi ko initié mhm. di nuyu borom kër gi ku ñëw ci kër da ngay nuyu borom kër gi dëgg la eh, président Youssou Ndour ñoo ngi koy nuyu bu baax moom soppe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko nuyu di ko jiital ci nuyoo bi ñu ñuru ñu mu ànd ci liggéey bi Birane doom xam ne moom directeur la fi ak Bouba Ndour nga xam ne suñu xarit la. macha allah njàgga tamit suñu xarit la. macha allah waaye lu waral loolu yëpp ak suñu teewaay fii mooy alxaaji Pape Cheikh la. macha allah ñu ngi koy nuyu bu baax. jërëjëf Chérif. Eh, moom suy wax ci man kenn du sax laam-laame mbëgg bu ñu bëgg. ndax loolu nekkul ñu la bëgg loolu laa ko man ko yow nekku mën nga bëgg. Mhm. yonent bi nga bëgg rek sallallahu alayhi wa sallam. di ko di ko jaarale ci man loolu laa koy wax suñu suñu suñu frère la suñu xarit la. di nuyu waa kër gi yëpp. alhamdulilah di nuyu ñu mu toogal ci plateau bi. Mhm. suñu euh, papa garmi nga xam ne moom lu baax lay wax ak di ko def moom tamit xam ne ñu mel ci ñun ñoo ngi koy nuyu di nuyu ñu mu toog ci plateau bi yëpp soxna Fatou Dieng ak euh, soxna Yacine bi nga xam ne man maa ko tuddee yaasin rasul ndeysaan ndax nu mu bëggee yonent bi sallallahu alayhi di ko feeñal saa su nekk ci man dëgg la ma ne ko yow yaasin yow bokk bokk naa ci ñoom boole sa tur bi rasul yaasin rasul la tuddee eh, di ko nuyu di nuyu soxna coro coro mhm. coro mbaa li nga xam tamit gis nañ ñëpp ku nekk liggéey fu mu taxawee ñoo ngi di nuyu Pape Cheikh eh, yéen a ngi bëgg waxee waxtaane Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tànn kan oustaz El Hadj Pape Hann mhm. El xam ne kenn la ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci xam-xam bi mhm. ci mbëggeel bi mhm. sa Assane mhm. Chérif lu jóge ci làmmiñ ci nopp lay yem dëgg la waaye lu jóge ci xool ci xool lay jëm nga mën a taxaw année lëmm nga def émission tuddee ko siira siira mooy jaar jaaru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga ne da nga jël initiative yow année bi yëpp ngay waxtaanee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu initiative bu rëy la. Mm-hmm. waaye xam-xam dëgg. Mm-hmm. ak taxawaay dëgg moo ko mën. dëgg la. man loolu laa bëgg su ma lay présenté yow doy na rek mu wax ne yow yaa jël initiative ne da ngaa taxaw di waxtaane yonent bi at bi yëpp. macha allah alhamdulilah noonu laa koy présenté suñu xarit la suñu soppi la tey boolewuñu. dëgg la bu yàgg yàgg lañ xamante waaye ci géewu Seydina lañ xamante. fu ñu ma gis. di ma teral di ma jiital di ma xoolee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may ndam amiin amiin amiin waxuma ci émission bi rek waaye ci lépp ndam ci lépp laa koy ñaanal amiin amiin Oustaz euh, Assane jërëjëf El Hadj Assane naa sa taxawaay ci télé bi bu baax jërëjëf ñun télé bi daf ñu suñu kër la dëgg la ñoom ñoo ci boole nag dëgg la dañuy tëjee Seydina Mouhamed si waxtaan ñi mag yëpp ñu ne yow lañ tànn nga nekk suñu invité d'honneur wala nga ñëw présider jotaay bi ñu xoolee la yonent bi mooy troisième année bi ñu koy def eh, ñu ngi rafetlu loolu baax di ci kontaan bu baax di la gërëm ñu ngi leen si duñu duñu duñu benn émission dara lu ñu mën a rectifier gis ñu dara lu ñu mën a jubbanti lu dul yëpp tegu ci njub ak ci mbaax yal na yàlla dëgëral leen yaa rabbi maa ngi daanalee Diallo toogaayam bi yombul ñëpp ñoo ngi koy dafa baax ñii ànd nag ñu nekk moom bis bu nekk ñuy wax dafa baax dëgg la ñëpp ñoo ngi koy soxal dafa baax ñun ñëpp ñoo ngi koy seedeel baax boobu dëgg la waaye baax yomb na benn bis waaye dëkk ci moo jafe Pape Cheikh su toogee ci jataayam macha allah ñëpp lay mettre à l'aise muy boroom xam-xam bi muy timit ki nga xam ne nitu àdduna la muy gouverneur ministre la wala ku mu ci nekk ñëpp li mën def lanteel yal na yàlla sàmm ko yaa rabbi amiin amiin amiin am nañ mbégte tamit ren chef xale général Tiwaawoon suñu baay Aboubacar Sadiq mm. woote fi en direct donc kon carte générale ren jël na beneen ampleur beneen dimension ngeen am appel bu jógee ba Nimjaat surtout Cheikh Cheikh Saad bu woote fi ak kilifa fi woote yëpp waa kër Cheikh Ahmad Bamba doomu mm. lu fi la lu amul woon mm. kon lii mën nga tuddee yokkute ala kulli xaal euh, Oustaz Pape ñu ngi lay nuyu bu baax ñu lay wax ne ruhul xursi maak mm-hmm. ñu lay gunge ak ruhul xursi alhamdulilah ñu ngi wax ne sa soppe bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li nañu di déglu pour nga wax leen kan mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nag dafa am pàcc yu bëri mm-hmm. lu mu lu ci xaj incha allah nga waxtaanoon ci yonent bi sallallahu alayhi maa ngi lay nuyu di la ziyaara di ànd ak yow ci jotaay bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa mhm. na solo mhm. ndax euh, macha allah lépp matale na mhm. ndax fa tabarakallahu lii rek lañ doon xaar si yow ndax comme ni nga ko waxee sa samaam sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fu di dog itam dañ koy jox cëram na la fi yàlla yàggal nga yàgg di teewe quartier général bu ñuy waxtaane sayduna muhammad sallallahu wa sallam ndax sa teewaay fii taaral na jataay bi waaye yóbbu na ko si beneen dimension ndax euh, fa tabarakallah ñuy waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wasallam dog itam toog loolu yaakaar naa mbégte bu rëy rëy la euh, Chérif Boubacar euh, oustaz Pape mhm. ñu ngi lay nuyu jërëjëf di la ziyaar di la jox sa wàccuwaay mhm. tax nga Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu bari si àdduna yàlla def ko seen xol yi mu jaare si sa jëmm jaare si sa kàddu mhm. jaare si sa waxtaan te loolu dara waru la ko lu dul si cofeel si Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. ñu lay ñaanal yàlla yàlla gën la dëgëral yàlla gën la sàmm yàlla gën la aar làq la fu yàq yeggul si darajey ku sakkanki fii soxlawul promotion Seydunaa Muhammad mhm. sallallahu alayhi wa sallam euh, waxtaan wi nag dina tëddee si ay question mhm. mais dañ lay bàyyi nga nuyu téléspectateurs yi incha allah boo paree ñu jëlaat kàddu gi daal dee bërëxal question yi incha allah tafadal barakallah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin fa hamdan liman fi samaai ilah wa fi l ardi ilah wa salaatu wa salaamu ala man usriya bihi layla sayiduna wa maulana muhammadum man naa la maa naa la neyla wa ala alihi wa ashaabihi gurri lmuhajjalin wa summi lmubajjalin wa radiyallahu taala an il miskil azfar saaxibi sirril abhër wal gawsi naafiil ashhër qutbil maktuumi wal xaatimil muhammadil maaluum abil abbaasi ahmad abna muhammadin tijaani radiyallahu saaxi xuluubil xawmi hmm. bi ku uusil macaarifi wal macaani wa an saairil xulafaa'ihi muzuunil arbaax hmm. suqaatil ku uusi allati tunsi ku uusal mudaami waraax hmm. nuxayikum taxiyatan tayiba wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatulah mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nu ngi leen di nuyu nu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax a baax <laughs> euh, Seydi Alxaaji Assane Seck nu baal ma ma nuyu sëtu Seydina Muhammad bii toog sallallahu alayhi wa sallam di Chérif Boubacar Haydara nga xam ni ñoom ñooy deretu rasulullahi sallallahu waa kër Seydina Muhammad nag sallallahu alayhi wa ñoom la nu war a jiital ci lépp mm-hmm. kon Chérif nu nga lay nu nga xoolee sa jëmmi maam sallallahu alayhi wa sallam di am mbégte bu baax ci bokk ak yow jotaay bi mm-hmm. ñaanal la yal na yàlla yokk la dëgëral moom daal xam naa euh, groupe Futurs Médias alaaj Pape Cheikh Diallo lii nu def war a waxtaanee sa maam rasulullah yi jël si surtout Seydina Muhammad ne ko toogal nga présider ñu waxtaan wi mm-hmm. loolu mooy la mag ñi naan cere njaboot boo ca bëggee da nga naan doom ja yàngu waaw cerey njaboot boo ca bëggee mm-hmm. da nga naan doom ja yàngu ñu war a waxtaanee li ko sëriñ Assane waxee ko sakkan ki di rasulullah yi euh, euh, dog itam toog mm. mooy am nañu yaakaar ne yàlla ci boppam dinañu nangul li ñu koy ñaan ci darajee rasulullah yi kon sërif Boubacar nu ngi lay nuyu ñaanal surafaaw yi na ci biir réew mi ñoom ñëpp yal na yàlla yokk leen dëgëral euh, nuyu sëriñ Babacar Ibn Alaaji Mansour général des Tidiane ñaanal ko sunu sëriñ mu yàgg fi lool te wér lool ak njabootu Seydi El Hadji Malick gépp ñaanal sëriñ Mouhamadul Muntaxa Mbakke ak njabootu Cheikhul Xadim gépp nuyu ko moom itam ndokkeel Abdoulaye Thiaw Laay njabootu Sidna Limaamulaahi Ceerno mhm. euh, Mouhamed Bachir Taal xalifa Omariyen moom itam nuyu ko ak njabootu maam Cheikh Omar euh, Serigne Ahmed Tidiane Niass ca mm. lew na Niasseen xali mm. mm. maam njabootu maam xalifa Niass Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass ca Medina Baye xalifa maam Alhaji Ibrahima Niass gépp euh, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck ca Ceneba Serigne Muniru Njegeen ca Thiès Serigne Abdou Darame ca Andoulaye Serigne Mansour Cissé ca Pire Serigne Ousmane Ka xali Serigne Jibel Ka alaaj Pape Serigne Cheikh Tidiane ba ca a ca ca Medina Gunaas ah. ak mbooleem xalif généraux yi ni ci biir réew mi ñoom ñëpp yàlla ñoo am jàmm ñaanal njiitu réew mi ñaanal borom kër gi président yu Ndour hmm. sunu directeur yëpp Birane nduur Ndiaga Ndour Bouba Ndour ñoom ñëpp yal yàlla dëgëral leen alaaji Pape Cheikh Diallo maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziara maa ngi lay ndokkeel di la ñaanal yow itam mm. yal na yàlla sàmmal la boppam yàlla aaral la boppam lu ñëpp wax rek loolu mooy dëgg ndax ñëpp dañu gestu ne nit ku baax nga ku rafet xol nga te it ñun ñiy nekk ak yow bis bu ne loolu xam na nu ko ci yow bu baax a baax mm-hmm. nga bëgg ñëpp euh, bëgg ñëpp am jàmm bëgg ñëpp yokk kon nu ngi lay ñaanal yal na yàlla defal la jàmm yàlla bu la kenn ëppale ci rasulullah yi ak yàlla bu la kenn ëppale ci sëriñ Fàllu Mbàkke mi nga yaakaar bëgg ko ba ñëpp xam ko yàlla bu la kenn ëppale ci moom nuyu euh, Mouhamed Ndiaye moom itam yàlla barkeel ko euh, sunu soppe la sunu sang la nuyu soxna Fatou Dieng sunu jigéen nuyu soxna Yacine Sey euh, sunu jigéen soxna Coro Mbaar nuyu nag sama xarit alxaaji Mamadou Mbay Garmi mu tedd mu baax mi mudu boo ne ko jàkk xam ne dafa baax mbaax moom dafay dafay dafay leer xati ci kanam Mamadou dafa yéene ñëpp jàmm mbaax gu mu wax ci ñun rek ci jëmm jii la nekk euh, dana am ay teraanga yuy ñëw mu nu koy jox te ki nu koy jox sax duñu ko xam mooy dem ba foofa ne Pape Hann mi teral leen ko ngir rasulullah yi kon alaaji Mamadou loo wax rek yow mi yaa koy jëf yal yàlla yokku la dëgëral oustaz Assane nag alaaj Pape mm-hmm. moom kenn amul fayam. Euh, ñun ñëpp dañuy def rek ñaanal ko yàlla. ndax Assane bi jàng jotee dem na jàngi. Mhm. bi wuti diplôme jotee dem na wuti ko. Mhm. jàng euh, fànnay xam-xam yi. Mhm. ñëw di ko laaye biir nit ñi pour nu gën a xam yàlla xam seen wàllu diine. Euh, di ko ñaanal moom Assane li mu bàyyi. téye ci diine dafa bari mhm. moo tax euh, rasulaay ci boppam yëgal ni moo lay sàmmal boppam moo lay aaral boppam moo lay téyal boppam ndax defee nga ko yitte ju kawe defee nga ko mbaax waaye itam say wuy jur yi gërëm la ba nu xam ko mhm. waaw sa yaay gërëm la ci sunu kanam ndax loo am euh, yóbbu nga ko ci say wayjur say mbokk yëpp gërëm la loolu nag Assane bu la ko yàlla defalee yàlla defal la nga laab sa xol laab loolu sant yàlla yàlla yàlla sàmmal la ba boppam yàlla muy aar yàlla yàlla aaral la ba boppam ba fi nga bëgg diina ji àgg fa fi nga bëgg nit ñi walbatiku wëlbatikoo mal yàlla dëgmal xam ne yàlla na yàlla defal la ci lu kawe sa njort euh, di am mbégte bu baax a baax a baax euh, Oustaz Assane Seck jërëjëf ñu lay ñaanal yàlla yàlla gën la dëgëral gën la sàmm ndax olof nee na lu am rafet su amul woon mu ñaaw waaye ñu ziar bu baax suñu mbokk yi nga xamante ñooy tagg Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa ndax mënuñu ñàkk si jataay bi mm-hmm. ñoom la ñuy wax xorom si cin fa tabarakallahu jël nuyoo beeg ziar bi yëpp tekk si loxo El Hadji Ngagne mm-hmm. mu seddal la ko ñoom ñëpp si euh, fa tabarakallahu masha allah pastef gi si cofeel gi si taalibe gi waaye itam fa tabarakallahu ak ni ñuy jëlee xolu nit ñi di si dugal rasulullahi mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam léeg ne day toog dégg ku lu ñuy oustaz Pape Hann kon yàlla leen yàlla gën a dëgëral ndax li ñuy def kaab defoon na ko Muhammad sallallahu ba mu jël mantoom jox ko ko may ko ko kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom wolof nag dafa am lu mu wax hmm. nee ne bu nit ne bu fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma defal ko nangam hmm. sëtam toog fi defaloo ko wala kuy wax si moom defaloo ko bu fi ñëwoon tamit doog ko defal kon guddi gi tey guddi mag ñëpp la hmm. fa tabarakallahu ma sha allah fa ñu tëdd ñoom ñëpp tey bëgg nañu ndax seen soppe ki ñu bëgg ki ñuy roy ki ñu yaakaar àdduna ak àllaaxira moom la ñuy waxtaane mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam oustaz Pape hmm. loo gis nag am na njëlbeen. loo gis am na fu muy tàmbalee. waaye itam loo gis comme ni ñuy waxee wañ boo gis benn lay commencé. waaye Chérif junj na ko léegi. kenn mënul waxtaane Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te waxtaane woo. li nga xamante moom moo di njëlbeenam. di leeram ndax suñu maam Maodo Cheikh Seydi El Hadji Malick radiallahu taala anhu moo nañu woon wa innahu id araada allahu nashatana abaana min nuurihi ñu ne ko ban leer mu ne nuuran nabil alamin saxilaasu dahab mm-hmm. léegi leer googu nag maam Maodo waxoon radiallahu anhu borom parasol ba ne woon yàlla bi mu nammee suñu am dafa jël si leeru rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sàkk si maam aadama ba ñun ñëpp si la ñu gënee àdduna mhm. leer googu oustaz Pape Hann fan la tàmbalee ba yëg si si rasulullah sallallahu sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Oustazane nu ngi war a waxtaanee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nu ngi war a waxtaanee ki nga xam ni amam ngi moo tax nu am mhm. nu ngi war a waxtaanee ki nga xam ni bu defuloo nag moom nit du am àddina du am alaaxira du am aljana du am safara du am te mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nag alaaji Asan hmm, oustaz Pape li nga laaj hmm. ginnaaw bi ma nuyoo alxaaji Ngañ Mbaay mu baax mi ak ñi mu àndal hmm. nuyu Sëriñ Fàllu Sekk moom itam ak ñi mu àndal nga xam ne ñoom dañu jël seen dund yëpp jox rasulullahi sallallahu alayhi wa yàlla alaja san dafa nekkoon moom dong hmm. dara amagul hmm. yàlla dong moom dong moom yàlla hmm. moom dong moom yàlla lim fi nekk moom yàlla kenn xamul lu mu toll déedéet waaye yàlla bëgg na bind moom borom bi subhanahu wa dindi ci leeram bind leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon buñ la laajee waxal ni rasulullahi bi ko yàlla bind yàlla dafa dind ci leeram bind leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye looy dégg ak looy xalaat hmm. yàlla nga ko bind ci leerug rasulullah gi kon neel benn yoon boobu hmm. bi yàlla bindee ci leer moom yàlla bind ci leerug rasulullah gi hmm. leneen looy xalaat yàlla nga ko bind ci leerug sidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégg nga bu baax bayit bi nga tàmbalee samam Sidil Hadji Malick wax ko léengul abaana min nuurihi nuura nabi alalami ala ala mooy aji ka di aji xam ji ay maamam tamay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw moom moo xam ay maamam sallallahu alayhi ala sallam alalami mooy ka di aji xam ji ay maamam kon bi yàlla coppate dindee ci leeram bind leeru si gina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaaj pap yàlla bëgg a bind nag boobu yàlla defaru na moom ba pare moom yàlla xam ñi mu bëgg a bind dañuy gëmmintu te moom yàlla du gëmmintu du nelaw laa taaq zuhu du ko jot sinatun ngëmmintu wala noom du caagi nelaw yàlla yàlla yàlla xam ñi mu bëgg a bind dañuy am soxla di am aajo yàlla amul ci kenn soxla wa huwa qaahirun fawqa yàlla yàlla yàlla dina ci leeram bind leerug si gina Muhammad alalaja san foofa nag yàlla bind lépp arwaax yi ña nga ca aalimul arwaax avant ñëw fii ci aalimul asbaax maa ngi lay wax ci leeru rasulullah sallallahu alayhi wa sallam foofa koo xamanteel fii dimb lañu xamante waaye alaaji asan koo nekkal fii ci àddina xamante leen dimb xamante wu leen woon yàlla teg arwaax yépp laaj leen kanay seen borom bi rabbikum alastu bi ana kanay seen borom ñépp ne tekk yàlla ne alas bi rabbikum ana kanay seen boroom ñépp tek tekk te kenn war a wuyu muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu waxul bu wuyuwul kenn wuyu moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ni alas bi rabbikum ana kanay seen boroom xoolal ana foofa mm. sekki rek wuyu nabi danga ko xam parce que bu ne waaw waaw ana kan yàlla na ndax du ma seen ndax la yàlla wax hmm. alastu ndax du seen borom hmm. keroog bu siggi Muhammad ne waaw sallallahu alayhi wa sallam waaw mun nga ni waaw doo suñu borom hmm. bu ne woon déedéet déedéet doo suñu borom xoolal li siggi na Muhammad toon daf ni balaa oh. ah kay ah kay nu kaana munaa jiyaa waaw kay de dencal ma ko ba ci kanam. alayhi wa sallam. damay nuyoo rek. ah. dégg nga li ma wax awwalu man la baa Alaaji Mansuur ko wax. mu ni Seydina Muhammad mooy njëlbeenu ko jëkk a wuyu. Hmm. alastu bi rabbikum keroog ba yàlla ne ndax dama seen borom. mu ni huwa moom rasulullahi ar ruux mooy leer ga. mooy ruux ga. Hmm. te wa rahmaanu gis nga waaw gi waaw xal la mm-hmm. wa rahmaanu te mbir moom yàlla wal mm-hmm. xaal wa tamyiizu man subaani mm-hmm. ala ixtilaafi l wadi wal baani summa kilaa nawayni jaa fadlahu munakkaran baada tamaami jumla lakin ida nazarta fi ismi l xaali wajadtahu istaqa min afxaali macha allah wa rahmaanu te mbir moom yàlla kaana nekk na moom yàlla mu naajiyaa di aji déelanteeg rasulullahi yàlla déelanteeg moom ne ko ëllëg danaa woote soo wuyuwul kenn du wuyu sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ndax du ma seen borom ndax la yàlla wax Sidina Muhammad ne balaa ña fa nekkoon ñëpp mbindeef yi ah kay yàlla ah kay yàlla yaay sunu boroom ah kay yàlla yaay sunu boroom yaay sunu boroom mm. boobu al arwaaxu junuudul mujannada fa ma taarafa minha italaf wa ma tanakara minha ixtalaf wa minha itilaaful muridina bil iradati wal muhibbina bil mahabbati wal mustaqina bil shawqi wal aashiqina bil ishqi wal mustanisina bil unsi wal mutawahidina bi tawhidi wal mutaabidina bil ibadati wal awliyaa bil wilayati wal ambiyaa bin nubuwati wal mursalina bi risalati fa kullu jinsin yastanisu bi jinsihi wa yalhaqu mimman yalihi fi maqamihi wa min huna tafhamu maana قول شيخ زروق الاعتقاد أصل كل خير وقال قصيري رضي الله عنه الاعتقاد ولاية cër bu nit am keroog la la ko yàlla jox moo tax ko am problème yaa ko amal sa xol alaaji asan lii ko yàlla jox xaaral ma soxoree ko gaaw xaaral ma jëm koo kale déedéet cër bi nit am ci àddina démb ko yàlla jox keroog la yàlla sédd la cër yi moo tax toog naag rasulullah yaa da nga ma laaj ci leer gi dafa toog sidna omar moom rasulullah ne ko omar kaay omar ñëw mu ne ko ndax xam nga ma. Hmm. Hmm. Seydina Omar ne ko xam naa la. Hmm. ndeysaan Abdoulaye la jur. Amina la jur. ngir Xurayshi nga bokk. askan wu tedd xam naa la. nabi ne ko Omar ndax xam nga ma mu ne ko gëm naa ni yàlla la yónni. kon xam naa la. Rasulullah ne ko Omar ndax xam nga ma. sëñ te dëgg-dëgg nag xam naa lii ci yow. mu ne ko amul xam xamoo ma. mu ne ko yaay kan yaa rasulullah sallallahu na mi ne ko omar kaay ma wax la may kan hmm. ni ko omar sama leer la yàlla njëkk bind avant yàlla bind dara hmm. mu ni ko omar sama leer sujjóotal naa yàlla hmm. juróom-ñaar téeméeri at siggiwu ma allahu akbar wa ruwiya annahu alayhi salaatu wa salaam awalu maa xalaxalaahu taala nuur yi wa an sayidna omar radiallahu anhu anna mawlaana rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam xaala muqaatiban la yaa omaru atadri man ana ana allazi xalaqa allahu qabla kulli shay'in nuuri fa sajada lillahi fa baqiya fi sujudihi sab'a mi'ati aamin fa awwalu kulli shay'in sajada lillahi nuuri wala faqra ne ko yaa Umaru atadri man ana ana allazi xalaqa allahu taala al arsha min nuuri mm. Mm. wal kursiya min nuuri mm. wal lawxa min nuuri wal xalama min nuuri wa nuur al absaara min nuuri wa nuur al aqli allazi fi ruusi al xalqi min nuuri ni ko wala faqra ni ko Omar yii mën a wax aras ci sama leer la ko yàlla bind mhm. àlla walahul mahfuuz mhm. ci sama leer la ko yàlla bind mhm. xalima ba yàllay bindee ci sama leer la ko yàlla bind siège ba yàlla toog ci sama leer la ko yàlla bind omar kóllëre gi yàlla digganteeg yonent yi ci sama leer la ko yàlla bind lu caagi damay puukaré wu nag tiitaruwuma tiitaruwuma mais dama bëgg ngeen xam may kan sallallahu alayhi wa sallam asan oustaz leeru sidina Muhammad ndigul mu jaar yaa yilif jamono leer ga musul jaar ci ndiglu mosuma yàlla mm. leer ga dem na ba ci maama bu ñu wax Ilias mm. Ilias yi wër Kaaba gi mm. naan labbayka allahumma labbayka mm-hmm. labbayka la sharika laka labbayka inna alhamda wa ni'mata laka wal mulka la sharika laka ñu dégg léew sidina Muhammad ci ndiggal Ilias mm-hmm. di labbayka wu sa maam mi bul fi sulbin hmm. li ilyasin hmm. hmm. yu labbi wa yasmau lmawasina bil asini ilyas a ngay labbay wax ci gémmiñam maanaam bu ñëw ilyas ma ngay labbay kaw ñu dégg leeru Sidina Muhammad benn kàddu guy bàyyi ko ci ndigal ilyas di labbay kaw li ilyasin yu labbi ngi si ndigal maam di maam Seydina Muhammad sallallahu alayhi muy tawaaf kaaba ga leer ga di talbiya di la bay kaw oustaz Pape di la bay kaw leer ga nekk ci ndigal Ilias di la bay kaw allahu akbar nga xal nga xool waa ji fi ko yàlla waajalee mhm. moom boo ko waxtaanee rek sallallahu alayhi wa sallam nga yëg ni ñeneen ñëpp ñu ngi ci ginnaaw rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom boo ko tuddee mhm. nga yëg ni lu nit am ci àddina hmm. daraja bu nit am hmm. garaat bu nit am hmm. yaa ngi ko amee ci daraja yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amul woon takk ndeer moom rasulullah mooy dëggi dëggi jëmmam ja ñëwul moom rasulullah dañu wax ni dëggi dëggi jëmmam ja bu ñëwoon boo ko xoolee da ngay ruyi sallallahu alayhi wa sallam xam nga sondeel boo taal muy tàkk sondel bu tàkk mm-hmm. lu muy gën a tàkk mm-hmm. day day ruy di jeex ba jeex tàkk mm-hmm. Seydina Muhammad dëggi dëggam jë jëmmam ja bu ñëwoon ci àddina soo ko xoolee da ngay ruy sallallahu alayhi wa sallam amuloon taqandeer moom rasul koo gis buy dox am nga gis taqandeeram ba mu des rasulullah ji sallallahu alayhi wa sallam xijaabuhum nuurun mm. awin naaru mm. lawin kashafat hmm. la ahraqat hmm. subahatu wajhihi mantaha ilahi basaru sallallahu alayhi wa sallam kiiraayam nga moom rasulullahi hmm. ñu ni ñu ni ñu ni leer la wala safara la ndax leer gópp ga leer la wala safara la waaye bu ko yàlla wuññi woon indi xaqiqatul muhammadiya ji dëggi dëggi dëggi jëmmam jëmmam rasulullahi alaaji asan boo nee ko jàkk moom Seydina Muhammad da ngay ruy wana jol maak bu daan dox amul takk ndeer bu doxee ci xeer dafay marqué ndax xeeray gaaw nooy ndox njol maa ko dox ci waaye bu doxee ci suuf du marqué hmm. ndax suuf dafay gaaw di mar tànk rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kookoy Seydina Muhammad leer bi fa la jaar leer ga ba ñëw ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam foofa nag alaaji Asan hmm. boobu njol màkk leer la moom dong ak yàlla ca la ko yàlla dinaa wax gaa yi ni leen doo ñoom ñoom du ñu yow lii ku ko amul bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naa wax gaa ñi ni leen doo ñoom ñoom du ñu yow hmm. fa la ko yàlla jël moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boole ko fukki kiiraay ak ñaar xam nga ñaar at la ko def hmm. na mi def ko fukki junni at ak ñaar hmm. kiiraay bu ne junni at kiiraay déedéet kiiraay bu njëkk ba hmm. la def fukki junni at ak ñaar kiiraayu ñaareel ba fukki junni at ak benn onze mille ans kiiraayu ñetteel ba fukki junni kiiraayu juróom beneen ba mu def ko juróom-ñeenti junni bii juróom-ñetti junni bii juróom-ñaari junni bii juróom-benn junni bii juróomi junni ñeenti junni ñetti ñaar benn suñu waa ji raw sallallahu alayhi wa sallam waaye kiiraay ya muy xudratun minnatun izzamun rahmatun saadatun manzilatun hidayatun nubuwatun karamatun rifaatun taatul mawla shafaatu kiiraay ya jeex cheikh Seydil Hadji Malick salaam Seydil Hadji Malick gën a ko wax fu leer nga jaar. booba nag nga xam ne yonent bi kon. nekk na fekk yàlla ay at yu baree bari junni junni mu rab bis toog nag Jibril alayhi salaatu wasalaam luy mhm. waxtaan. Mhm. na ne ko Jibril bàyyi ma duma sa morom. Mhm. sallallahu Jibril ne ko lu yàlla bind yow a. waaye maa la mag de. Rasulaay ne ko Jibril ñaata at nga am. Njool Màkka Jibril ne ko takku ko xaw ma ban année laa judd. waaye naa la wax at yoo xam ne di nga xam ne yàgg naa fi. Njool ma Jibril ne ko ñaata at la Jibril ni ko am na benn biddiw bu naan fenkeeroon arash ne ko biddiw ba hmm. bu fenkee balaa suux dina toog soixante-dix mille hmm. juróom ñaar fukki junni at hmm. biddiw ba soo ko gisee benn yoon yow dund nga juróom ñaar fukki junni at soo ko gisee benn yoon taman jibril gis naa ko juróom ñaar fukki junni yoon xaw ma na dégg dellu sa fi njool màkk na ko ñaata at nga am jibril ne ko takkuma ko waaye ma wax la at yoo xam ne di nga xam ne yàgg naa fi. am na biddiw bu daan fenkee yoon ne ko biddiw ma boo ko boo ko bu fenkee balaa suux toog soixante dix mille ans juróom ñaar fukki junni at soo ko gisee benn yoon yow dund juróom ñaar fukki junni at soo ko benn yoon. boo nga gisaat ko beneen yoon dund yeneen juróom-ñaar fukki junni ñetteelu yoon yeneen juróom-ñaar fukki junni yu ne ko gis naa ko juróom-ñaar fukki junni yoon. soixante dix mille yool ma kere ne ko jibril gone nga ana zalikal kawkabu sallallahu alayhi maaroon bi juuba ilam annahu lama taallaqat iradatu xaqi taala bi ijaadi xalqihi abrada alxaqiqat almuhammadiya min anwaarihi suma salaqa minha awalima kullaha uluwaha wa suflaha summa alamuhu bi nubuwatihi wa adamu lam yakun ila kama qaala sallallahu alayhi wa sallam bayna alruuxi waljasadi suma bajasat minhu sallallahu alayhi wa sallam uyuunu alarwaaxi fa huwa jinsu alaali ala jamii alajnaasi wal abul akbaru li jamii al mawjudaati mm. wala man taha zamaanu mm. mm. wala man taha zamaanu bismil baatini mm-hmm. fi xaqihi mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ila wujudi jismihi wa zahara sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bil kulliyati jisman wa ruuxan aliya wa safila siatun لعلى معدن الصدق وسليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا المختار في القدم وخلق الأخلاق من الأنبياء هوري مقدمة فاعلم ولا تنم يا سيدي الحاج مالك قلبي لو في mi takraaro Sëriñ Bamba nee na li anna woo lil huda wa nooru jarraaru yàlla سقم ولا حمل والنفس قراء ماذا للخير يدعو ويجذب ولسعادة دار ربي na Cheikh Saad Bou wax nu xam sunu mag ñi ki li nu am lépp mm-hmm. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oustaz Pape macha allah macha mm-hmm. gudd te da ngay nuyoo damay nuyoo guddi gi alaa daw me te si nuyoo nga toll mm-hmm. eh, yaa ngi woon si leeru rasulullahi sallallahu alayhi wa gaa yi fi ñu tibbee innal awalima aliyaha wa saafilaha ashiatun talaat mm-hmm. min afdali nasabi mm-hmm. cheikh seydi alhaaji malik radiallahu anhu mm-hmm. mu wax ne monde yi univers yi lépp lu ñu si créé ñu ngi ko jëlee si leeru rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi woon si càllaleem ca Ilias fan la jaar ba egsi si abdullahi ba seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw kon dama koy rëppatal rëppatalal njool maa ko ne ko jibril gone nga ana zalika al kawkabu maa doon biddiw ba oh. nabi jóge ci leer ya mhm. dugg ci géej ya mhm. rasul leer la mhm. foofa nag samam toppal nu ko waxaati o ab xuran yaa an biha sabaxa jamia min nadratin wal xubbi wal ruxami rasul a ngay dem sallallahu alayhi wa sallam samam sidil xajma topp ko radiyallahu anhu leer gaa ngay dem ba ci Ilias leer ga ndigg lu mu jaar yaa yilif jamono ndigg lu mu jaar rek yaa yilif jamono yaa téye yëf yi yaa yaa téye yëf yi moom leeru rasul ah nabiyullahi Adam. la tàmbale ci Adama. Adama yi am ñaari doom. Hmm. indi wu ñu leer. Mhm. ñuy am ñaari doom indi wu ñu leer ñuy ay seex indi wu ñu leer ba yut yàlla ba Ilias ñëw. ba yut yàlla siis ñëw. Mhm. yut yàlla siis nag moo ñëw doomu Adama la mhm. waaye moom ñëwul nekk seex. daa ñëw nekk moom dong. ñu ni lu tax mu ni leeru Sayyidina Muhammad lañ doon bañ muy raj raj loo ci biiru yaayu. yaay yaay xawaaw. wa kaana fiisu hmm. wasiyal asli muntaqilan min xiiratil karami lil xiiratil karami wa kaana siisu wasiyal asli muntaqilan min xiiratil karami lil xiiratil karami dafa jóge ci maam yi baax jëm ci maam yi baax moom rasulullah gi sa maam di dem Abdoulaye ko jur ma dem foofu demal Abdoulaye ko jur mm-hmm. Abdul Mutalib jur ko Hashim jur ko Abdou Manaf jur ko Xusay jur ko Kilab jur ko Murata jur ko Kaab jur ko Luway jur ko Ghalib jur ko Fihri jur ko Malik jur ko Nadar jur ko Kinanata jur ko Xusay Mata jur ko Mudrikata jur ko Ilyas jur ko Mudar jur ko Nizar jur ko Maab jur ko Adnan jur ko rasulullah waaye leer ga bi mu nekkee ci Abdul Mutalib dafa am saay saay bu départ pour toji Kaaba ga Abraha la tudd daan nañ koy asram daa gis ak at mu jot nit ñi aji màkk mu ni lu xew ñu ni ko benn néeg bu nekk màkk moom mën nañuy ziyaare ji kaabatullaahi mu ni su ma ko tojee dootu leen fa demati wala la njëkk ma koy toj dama fiy tabax néeg ngir ni ñëw bi yem ci man ab tabax fa néeg am na ma som boo xam ni nga mën a dégg ñi ñiy tabax néeg ba huit heures cinq la ñëw ma dagg benn loxo bi ne ko yow may tabax lu néeg bu toll nii ngay tardé eh. moom ab kon bari woon na doole mm-hmm. dagg benn loxo bi mm-hmm. ndax cinq minutes xam naa bu ñëwoon ci réew mi dina bari loxo yu mu dagg kon mm-hmm. Mm-hmm. ndax cinq minutes yi mu tardé mm-hmm. moom ab rëhë ab rëhë at ma dellu si nit ñi bàyyi ko di ziyaara ji kaaba ga mu ni kaaba ga duñ ziyaara ji su ma ko tojee daa dootuñu fa demati war na ay ñayam ñayam ñu laaj sa maam mu ne ñay ba xam naa tur wa xam naa sirno ba mahmoud la tudd sirno ba abul abbas mahmouduhu fa abul abbas yi kun yëtuhu ndax àgg na mu ni ba mu ci place bi nan mu xammas la lànk pour àgg ca la tudd daan lañ koy wax ashram mm-hmm. ñu laaj Maodo luy ashram mm-hmm. mu ni bakkan baa xaaj papam la tooñ mu dóor ko jaasi bakkan ba xaaj ñaar ay na nal mafaru wala ilahu taalibu wala ashramul maxlubu laysa al xaalibu boobu leeru Seydina Muhammad ma nga ca Abdul Mutalib Abdul Mutalib mu jur Abdullahi mu jur Rasulullahi kon ku tànk bàyyam la maam yu jigéen yaa ngi nii foofu na Fatimatu mm. salma mm. Mm. wa atikatun mm. hubbe yindallahu na simmi waxseetu bi di shaybaani wa maawiyatun bilwaawi salma wa layla wa uddalam tulami minhunna jandalatun laa tansa atikatun wa barratun suma bintu saadi thal zilkarami salma wa layla rababun sawdatun wa muanatun wa maadadu il abyata tëxtanami lamour benn baat la waa yai i wala yali li shawa yaswi iswi mu ni ay mokkalal al abiyaata bayit yi tëxta ni mi nga mang koom d'accord nanu tànk baayam nga nu wax samaam ne xam naa tànk ndey ja amina ko jur wax bu jur ko abdu manaf jur ko zuhratu jur ko kilaab jur ko amina moom ndeyam mi ngi tudd baratu bintu osmaan kooku abdu dar moo ko jur abdu dar xusey moo ko jur baratu bintu osmaan moom umu habib moo ko jur Umu Habib Asad moo ko jur Asad Abdul Uzay jur ko mm-hmm. Abdul Uzay Xusay moo ko jur mm-hmm. Umu Habib moomu Bartu bintu Awf moo ko jur kooku Abid jur ko mm-hmm. Awis jur ko Adiyun jur ko Kaab jur ko ba leer gaa nga ci Abdullahi am na 18 ans may nañ ko soxna jan jigéen la jigéen joojoo gën a tedd ci jigéen yi Makka gën a tedd ci jigéen yi àddina te mooy aminatan mbir ma muy ku nu wóolu naq yet set na wicc moom yaay sayyidina Muhammad an saa'iri tuhami ci mboolem tuuma yi ñuy tuumalee nit yaay rasulaay set na ci sallallahu alayhi wa sallam sekk oustaz Pape macha allah macha allah am na solo kon déparé nañ Chérif si leer ga ba mu nekkee biddiw waxtaan si ab jibril alayhi salaam rasulullahi leer la masa doon moom sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax suñu maam Cheikh Seydil Hadji Malick radiallahu taala anhu waxoon ñu ko muhammadun cheybatu hachimin ba bayti ba jeex mhm. kon seydunaa muhammad kenn du moom mooy premier wu premier wu yi mhm. ñëw nga bi leer gi jaar ba si abdullahi ba si yaayam amina mhm. radiallahu anha léegi yonent bi seydunaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu juddoo oustaz pap am na si loxo yu mu jaar bokk na ci maamam abdul muttalib ndax bi mu laa génne àdduna way juróom wu góor làqu na bàyyi fa way juróom wu jigéen mu judd ay at yu néew di ci si ñëw suñu maam wax nañu ko juróom benn juróom ñaar nga wax ñu ko comme ni mu ko waxee woon way juróom bu jigéen génn àdduna maamam génn àdduna bàyyi ta xam ñëw Abu Taalib mm. diggante boobu nan la rasulullah dundee ak ay way juróom ak ay maamam wala ak ay bàyyi ta xam oustaz Pape jërëjëf jërëjëf Alaaji xat balaga zeylu suba mm. fi nga ma laajee foofu la mm. macha allah rasulullah sallallahu alayhi wa yàlla daf ko waajal sa maam yàlla daf ko waajal ba ni mu gën a àddina nekk spectacle ca makkatal mukaram événement la woon événement la mawlidahu waaw ah, événement bu doy waar juddug rasulullah mm. événement la boo xam ni mus ñu gis kaaba gi jaayu naan ni ñetti fan dalul mm. kaaba gi def nii loolu événement la bu wér événement la boo xam ni dañu gis palais Kisra ndax Kisra dañu waxoon nu ñu yilif àddina keroog Sidina Muhammad gane àddina seen pale ba daanu. sallallahu alayhi wa sallam événement la. Mm-hmm. bu doy waar boo xam ni saawata euh, euh, Adja Fatou réew la woon moo xam ni durant mille ans diiru junni at ñu jaamu ndox. ndox. Sidina Muhammad juddu seen ndox ma ngiis. allahu akbar jaamu am na dëkk bu ñuy wax Faris. Mm-hmm. diiru junni at tàkk-tàkk la ñuy jaamu. am na chaque année année bu jot at mu jot am na famille boo xam ne yaa war a wuti mat. Mm-hmm. ndax tàkk-tàkk bi warul fay mm-hmm. diiru junni at ñuy jaamu tàkk-tàkk mm-hmm. keroog bi Seydina Muhammad ñëwee ca la safara sa fay mm-hmm. kon événement la mais événement bi gën a garaaw mooy màkk dafa amoon benn këll bu fa am liir bu mës a juddu dañuy dem ca këll ga yóbbu la fa jël bagaam nga mooy këll googu këpp këpp liir bi këppër ñiwaat liir ba këppaat liir bi këppër ñiwaat këppaat ko liir bi këppër ñiwaat ne liir bi aaru na keroog bi Seydina Muhammad juddoo te bagaan nga nekk na fi ay junni keroog bi Sidina Muhammad juddoo ñu jël bagaan nga këpp ko ko bagaan ngaa xar eh. wa fi lwiladati minhu jafnatun falaxa hmm. walil filaaqu ujaabun inda xawmihi bi xar nga nag nekk événement nekk kéemtaan ci magi makkatal mukaram naan waaw lu xew waaw liir bii lu xew keroog bi mu juddoo dañu samp trois drapeaux benn penku benn soow benn ca digg kaaba ga raat salasata alamin xadim tasabat hmm. fii kaabatin masriqin wal maghribi tasimi keroog bi mu génnee àddina da ngay tollu ndakaaru di seen waa ndar nga mën a dégg hmm. nga tollu saam di seen waa makkatal mukaram hmm. nga tollu makkatal mukaram di seen waa yaman àll bi leer nañ dëgg na tàmbalee feeñ ngay jàkkaarloog jinne muy wax ak yow te ko gis alaaj asal ganee a mooy li ngay màgg at nabi weer la koy màgg. Hmm. li ngay màgg weer nabi bis la koy màgg. waaw bokkul ak nit ñi. avant am deux ans nekk na ponkal. sallallahu alayhi wa sallam. avant muy am ñaari at nekk na ponkal moom rasulullah yi. sallallahu xam nga nit ku mat insaan al kaamil. xamoo ko de nit ku mat sëkk. nga xool nga vérifier jëmmam amul defo Cheikhul Xadim nee na mooy sama waaji Rasulullah wa akmalul wara sallallahu xalqan wa xulqan zahra oh. baayu Sëriñ Fàllu Mbàkke ni oh. wa mithlu qattu lam yura walan yura fi siyami dégg nga sëriñ Bamba nee na ahmaduna hmm. Hmm. kooku farxatuna na ne mooy sunu mbég rasulullah ku wax loolu sëriñ Bamba radiyallahu anhu cheikhul xadim ne kii mooy sunu mbég radiyallahu anhu nee na tabam nga sëriñ Bamba nee na wal juudi mus euh, musri diyem yi hmm. nee na tabam nga moom yonent bi xeeb xeeb na waame xam nga waame mooy luy sottiku taw buy di sotti ko béykat yi kontaan ñi amul woon ndox kontaan Serigne Bamba nee na ñëpp kontaan nee na tabu Seydina Mouhamed bàyyi Serigne Saliou Mbacké nee na wal juudu musra diyami nee na xeeb na waame sallallahu Cheikhul Khadim ni wa huwa moom rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam akmalul wara hmm. moo gën a mat ci mindee ne ko moo Cheikhul Khadim naka la gën a matee ci mindee fi bàyyi Serigne Fallou Mbacké ne xalxan ci mind booy liggéeyee dajeeg moom di nga tardé boo ne ko jàpp loxo sëgg si gi xool ko sëggaat si gi xool ko njool màkk jox la beneen couleur sallallahu alayhi nee na la mbind may rafet bàyyi sëriñ Saaliw màkki nee na waxul xan ak jikko ja moo ko dàq waaye nag wa mislu xattu lam yuraa walan gis nga ma ngi dañoo mën a jàng kenn du ñoom xoolal sëriñ Bamba dani lam la wax ak lan lam bu la ko arab waxee mën nga am yaakaar mhm. ne mën ngaa gisaat lu ni mel mhm. sëriñ Bamba ne walan bu ko defee nga génne sa xel lan moom bu la ko waxee demal tëddi demal tëddi lan xarfu nafin wa jazmin wa xalbil mudaari madiyan boo ko teg lan lan xarfu nafin wa nasmin wa stibaalin wa tayyidin seexul xadim ne walam wa mislu xattu lam yuraa nga am yaakaar ne ah keneen mën naa ñëw mu ni walam yuraa doo ko gisaat du am dégg nga dégg nga dégg nga asxan naa si télépathie. waaw maam Cheikhul Khadim radiyallahu anhu. lii la wax andi baytiya andi xalqan wa xuluqan. Seydil Hadji Malick Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu ñëwaat. wa kaana asyaa asxan naasi sa buntu min kulli wasfin. waaw xamidin xaaza afala tafdil rajaul baraya. yawmu zahmi sallallahu alayhi wa sallam mais foofu xam nga problème bi mooy lan. Hmm. soo baaxee wax ko lam yadral xayral xalqi. Hmm. waaw xalqan xuluqan wa xuluqan. dégg nga bàyyi li mu ko wax. montre yu baax yëpp ñoo ko ër. barxaama borom faydu tijaani radiyallahu anhu foofu sama am bay bi ko jiitu. Hmm. dañuy jarul ñu ma leen wax lépp ci rasulullah yi njàmbaaram moom du ko jàpp. Hmm. est njàmbaaru Sidina Muhammad aajewul ma leen koy wax. Hmm. maa kaana taxtaaju. tabyinan shajaatuhu ahlal madinati saa il layla fasihimi jarul ma leen di wax njàmbaaram. laajal waa Médine. guddi ga ñu tiitee am lu yëngu ci dëkk ba. tiital waa dëkk ba ñu ñuy dajaloo di dajaloo ba mat douze fukki fukki personne fukki nit ak ñaar. ñu ni gars yi kenn ku ne yor jaasi. nañ leen régler ci problème ba ba ñuy régler ci problème ba dajeeg Sidina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam leen wàññeeku leen régler naa ko. moom donc ànd ak moom rasulullah. Oh, gi kon jarul wax ma leen ma leen di wax njàmbaaram. kon wa kaana asja. moo gën a jàmbaare ci nit ñi. asxan naasi ahsanahum moo leen gën a tabe waaye moo leen gën a rafet. xal xan waxul xan moo leen dàq mbind. moo leen dàq jikko mu Seydina Muhammad alaaj Assane mm. dama wax mm. alaaj Pape léegi mm. li ma wax li Cheikhul Khadim wax insaanul kaamil ma wax la ni la li ngay màgg at na bi weer la koy màgg li ngay màgg weer njool màgg bis la koy màgg mm-hmm. samaam ni shababuhu màggu rasulullah mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam maa xulaamun dit xale mm-hmm. shabuhu di màggee noonu wal yow mun bésam shahrun mooy sunu weer wa aamun sunu at shahru zil karami mooy weeru aji tedd ji samaam ni xabaaraam na kon alaaj Pape nee na njool màkk raam na bi sëxëri ni ci ñaari weer deux mois la am raam moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw liir bu fi am ñaari weer tàmbalee raam doo tiita waaye xam nga bu gën a garaw fil jii mil xiyaamu nee na trois mois ci la njool màkk jug taxaw mat la jug taxaw ci ñetti weer wa fii daalin xadaa moom si kën judraani bi mu amee ñeenti weer ca lay jàppanu miir ya quatre mois wa xudratul machi wa asraa dox nga gaaw na fii ha inti juróom benn weer bi mu amee 5 mois ci lay dox. moom rasulullah bokkul waaw. dox nga gaaw na ci ci fii waawin ci 6 mois bi muy am 7 mois wa fii zayin 7 mm. mois yasaa lay doxee saa ya mu'tazimi comme doxinu aji farlu alaaj pap mm. bi mu amee juróom-ñaari weer. lay dox mu Sidina Muhammad comme ku am farlu kuy dox xam nga ñaata weer la am wax. 8 mm. mois fii xaa takallama. ah maanaam bokkul ak liir simple bi ñu naan te te te te te. xam nga xam nga wax ji kañ la set. neuf mois. bi mu amee juróom-ñaari weer. ca la wax ja set wicc moom rasulullah fii tain fa saatuhu bi mu amee fukki weer bu sànnee la mu sànni doo gis fa muy dal sërif sa maam sa maam ne min xam le amay ni la njëkk muy am ñaari at kaana la nekkee jafran di mu ponkal waaye bi mu mënee ñëpp kaana la nekkee za adda bi di borobu teggin sa maam ne yàlla xaway wi ni lillaahi est-ce que ma yéemati yàlla darul adibin mbaaxu aji yaru joo xam ne shabba màgg na fii lu yutumi kookoy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam macha allah macha allah kon kenn du rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax wa kaana fadlullahi alayka azima yàlla wax na ko si alquran dañ koy addiyee yi dañu koy joxe rek ci ci ci li oustaz Pape ànd kon ayca bàyyi jëlal bismillah déedéet déedéet mën nañu continuer ah, mais euh, organiser ci ginnaaw rek euh, téléspectateurs yi dugg ñu yi noonu tey dañuy joxe balaa yi ñëw balaa ñuy annoncé yi ñëw ah. ñun nañu joxe rek waaw macha allah waaw nañu joxe maximum de addiye léegi nii ci téléphone bi ku dugg am addiye bu toll ci ñaar fukki junni kon jeex na macha allah addiye yonent bi sallallahu alayhi mm-hmm. gis nga li oustaz Pape wax mm-hmm. lan commentaire alhamdulilah oustaz da ngay wàcc yàgg mu wax la mawlidahu juddam hmm. bi hmm. alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wa sallam lépp a leer hmm. alayhi mu gënee àdduna lii dama koy sa war a wax ndax junj la ci li nga war a jëm ci kanam yéen salaa sallam dafa gane àdduna rek commencé jàngal àdduna bu mu gënee àdduna waaye nañ ko waxtaan nañ ko ba tàyyi dafa juddu ci bi fajar di xar moom alayhi salaatu wasalaam su juddoo guddi guddi danaan moo gën bëccëg hmm. su judduwee su gënee àdduna bëccëg bëccëg ne moo gën guddi mu sedd leen juddoom bi alayhi salaatu wasalaam allahu donc moo ngi indi mbaanu xaat yéen salaa sallam bi mu gënee àdduna indiwul benn tilim wala benn taq leer la indaale alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wa sallam léegi naa ngi koy saa su nekk bu mu génnee àdduna mhm. li mu njëkk a njëkk a def mooy dafa ne rëpp ci suuf ay oomam su jóot ci suuf màggal boroomam yëkkati baaraam bi ci kaw mm. sàbbal boroomam malaaka ñëw jibril ak ay contingent jibril mikaayil asra asraay jël ko aminatu mu ne sàggan ngeen loolu waa Makka juróom naa leen doom boo xam ne sagal ngeen ba ñu yóbbu ko ndekete jibril moo ñëw di ko jël di ko présenté nekkin bi yóbbu ko kaw asamaan présenté ko waa asamaan na ak waa safara ak malaaka yi ak ñi fa nekk mag yi wax nañ ne su na sax nekkee na bay neex ba ñu tuddee àjjana dafa jaayante kóllëre ak Seydina Muhammad moo tax sallallahu alayhi wa sallam su safara tàngee bu mën a lakkee dafa jaayante kóllëre ak Seydina Muhammad salaas moo tax sallallahu alayhi wa sallam ñu présenté ko waa asamaan présenté ko waa suuf présenté ko géej gi président jéer ji présenté ko waa biir géej ak biir suuf suuf moo tax sallallahu alayhi wa ci loolu laa ba nga ñëw ci yoon sallallahu alayhi wa sallam yépp ku ci nekk bokkul li ko sa moroom tudde am na ñaari téeméer ak benn tur mhm. moom lañ koy bàkkee yomal xiyaama su jógee mhm. jógam bu mag boobu mag nee na su jógee jàppam bi mu jàppee woon mu jee jàpp mu ngi tooy balee ci boppam bi allahu ñu solo ko mantoo ñu ne ay bot lay sol sañ seel ko moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi ñu bàkk ko tur waaye tur yooyu bokkal tur yi ko malaaka yi di woowee waa àjjana waa safara biir géej ci lu laa bëgg nga ñëw ci ustaas macha allah macha allah macha allah jërëjëf Cherif mm-hmm. keroog bi mu a àddina moom rasulullah dafa sukk ñaari bët óomam ya mm-hmm. wa sallam tàllal benn baaraam ba mm-hmm. banque ñeenti baaraam yi jublu penku ne jëlaala rabbin rafian wakiila sabaxa am ñu ni waxul loolu dafa ñëw rek ni allahu akbar kabira walhamdu lillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila moom rasulullahi sallallahu alayhi waaye liir la bu judd alaj paap indaale fanweeri bëñ ak ñaar moom rasulullahi sallallahu alayhi 32 ans la indaale moom Seydina Muhammad sëriñ foog nga dëgg keroog bi mu gën a àddina jibril malaaka jibril da koo këf dem ak moom abdul mutalib dugg ci ne amina ana liir bi amina xool xool ne amina ana liir mu ne ko liir bi gisuma ko mu ne ko bàyyi ma dee nga bëgg koo sànkal pexe ami ana liir bi min dafa am lu ko téye ne ko liir baa nga aljanna hmm. lu xew foofu xuurul xay nii di di ko tippoo di ko aayoo nen di hmm. te dikkagul moom Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa ñoo fekkee juddoom bi ñun ñoo ko réewle sallallahu alayhi wa sallam keroog bi mu gën a yaat dina moom Sayyidina Muhammad sallallahu waajaa nga Midine keroog bi muy judd ci gën a àddinaam ga mm-hmm. ci biir néeg ba mm-hmm. ku ñu wax Shafaaw nga xam ni mm-hmm. moo jur Abdurahman ibnu Awf bokk ci ñi rawale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi muy gën a àddina am nañu wax ni umu euh, ay mana nga xam ni keroog bi njool Makka amee 6 ans Amina ngi dee ci loxoom. wa ummu Aymana baadal ummi taxmiluhu. moom it fekke na keroog bi Seydina Muhammad a àddina moom ummu Aymana. sallallahu na li ma gën a bi ma juddoo ni mu juddoo mhm. xam nga ñi rewle nañ mhm. mais ñi ko présidé taxaw di seetaan. Mhm. mooy soxna Mariama. di superviser di ko superviser. Mm-hmm. macha allah mooy Mariama. Mm-hmm. yaayu Talla Issa. Mm-hmm. ak Asiyatu bintu Imran. ah moom itam nga xam ni kenn ku ci nekk yàlla wax na leen ni. yéen ëllëg aljanna Seydina Muhammad mooy nekk seen borom kër. ñoom itam fekke nañu keroog ba njool màkkee gën a àddina. waaye Aliou ah, nee na loolu yéemu. loolu yéemewul nee na li yéeme. nee na ak ak ak xawlu xay mi parce que bi mu ko defee présentation bi. Mhm. waxal ko rasulullah yi daf ne ko ñii tamit. Mhm. ay xuurul xay ne ay ay ay xuurul ay ne lañu. Mhm. mooy ñi nga xam ni say soxna lañu ca aljanna xam nga kañ lañ ko ko wax. mooy bi mu nekk bi muy door a gane àddina. allahu akbar. ak xuta <laughs> nee na li ma gën a yëm ci sama doom ji mooy keroog bi ma gën a àddina niir ma na ca biir niir wa am na ay fas yu cay ngexal nee na am na kàddu guy wax ak man xam nga ci biir néeg nga tëdd war a am doom nga dégg ay fas yu ngexal alaaj Pape nga dégg kàddu guy wax ak man amina lay wax war a waa xatibul bagdaadi yu am na lamma wadaatuhu alayhi salaatu wa salaam. ra'aytu saxaabatan azimatan laha. nuurun. asma'u fiha. sahila alxayli. wa xafa xaana al ajnaxiyati. wa kalaami rijaali xataa xasiyatu wa xuyiba anni fa samiatu munaadiyan yunaadi tuufu bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi jamii al ardi wa aariduhu ala kulli ruxaaniyin min al jinni wal insi wa tuyuuri wal waxuusi wa aatuhu xalqa aadama wa maarifata siifin wa sujaata nuuxin وقلة إبراهيم وفصحة صالح وحكمة لوط وبصر يعقوب وسيرة موسى وصبر أيوب وطاعة يونس وجهد يوشع وسون داوود وبخار إلياس وحسبة يحيى وزهد عيسى عليه الصلاة والسلام amina nee na mm-hmm. keroog bi mu gën a àddina mm-hmm. kàddu ko def ni ma mm-hmm. mboolem yonent yi ku ci ne la yàlla joxoon nangu na ko jox na ko sama doom ji Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa aatu xalqa aadama mbindum maam aadama ma aadama ko amoon mbind mu njëkk la jox nañ ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw wakkulate ibrahima xaritoo gi yàlla xaritoo gi yun yàlla ibrahima yàlla jël na ko jox ko sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa fasaxna saalihin éloquence u yun yàlla saalix bu bu waxee nga déglu ko yàlla jox na ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaw wa xikmatu luutin xereñeeg luut yàlla jox na ko rasulullah gi wa taatu yunusa topp yàlla ak yunt yàlla yunusa xam nga topp yàlla yunusa dañ koo sànni ci géej jën wan na ko woowa jën weneen jën wan na ko woowa jën weneen jën wan na ko yunt yàlla yunusa nekk ci njëtti lëndëm ci biir géej gi teewul muy jaamu yàlla naan laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimina wa taata yunusa topp yàlla ak yunusa jox nañ ko sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah wa wa wa sirata musa taruk njàmbaar ku muusee jox nañ ko Sidina Muhammad wax ba daani yàlla cofeeluk daani yàlla jox nañ ko rasulullahi wa zuuda isa dëdduk àdduna ak isee jox nañ ko rasulullahi wa waxaara Ilyaasa weegug yun ko rasulullahi a mm. lañ wax ni ma mboolem prophète yi ku ci la la yàlla joxoon ko jox na ko sama doom ji waaye dama na xarit toog Ibrahima mm-hmm. alaaji Pape Cheikh mm-hmm. sa xarit da ngeen di xuloo léegi xeex léegi sangu àndal mm-hmm. waaye sa soppi lu mu def neex na la rasulullahi mooy soppe yàlla. Mm. sallallahu alayhi wa sallam macha allah. Uh, am na solo te fa tabarakallahu ma sha allah lii lañ bëgg a xam si sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla yamale ko ak kenn am na loo ma laajoon waxuma ci pare mm-hmm. mooy abu taalib fa laa jëm nii abu taalib bokk na si ñi nga xamante ni ñoom ñoo yar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abu taalib moo jur ali ali moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy doomam fatima ñu am si useynook asan ñoom meññ ñii mm-hmm. ñoom chérif radiyallahu anha Abu Talib nan la téye woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak naka la génnee àdduna oustaz Pape Abu Talib soxna Yaasin Rasoul biñ koy jox njool Màkka nabi nga am huit ans bàyyi ba Abu Talib bàyyi ba Abdoulaye dee na bi Seydina Mouhamed amee deux mois ci biiru yaayam Allahu akbar caravane ba départ jëm Saam Abdoulaye nekk ak Amine dañ ko koo may guddik aljuma leer ga jóge ci Abdoulaye dem ci biiru Amina. Amina bi muy taqali ko Abdoulaye njol màkk am na un mois ci biiram. voyage bi un mois la diire Abdoulaye dee. njol màkk am deux mois ci biiru yaayam. mooy caravane ba doon dem Saam. Amina tàggu Abdoulaye tàgg ko. ne ko damay def commerce. Amina ni ko jarul ngay dem toogal fii ci dëkk bi. loo am ñu bokk ko mu ne ko dama la bëgg a teral. Amina ni ko xëy jàkkaarloog sa kanam gi moom a gënal meuble mu ne ko dama bëgg su ma ñëwee jënd la soie jënd la or Amina ni ko sa bëñ yu rafet yi moom a dàqal soie moo ma dàqal or Abdoulaye ni ko jigéen dañ koy teral dem Saam jaay na ba jaral wàññee ko biir buy méttee ko daaneel oh. jaar na Midine ca kaw giléem nga la ko feebar bu daanelee moo tax ngay dégg ñu naan Abdoulaye ma ca giléem nga waa caravane ba ñëw Màkka wax ko Abdul Mutalib ne ko Abdoulaye kat dafa feebar bàyyi nañ ko Médine mu yebal xaaris taawam ne ko demal jëli ko ci yoon bi lañ ko télégramme daf xaaris ne ko Abdoulaye dee na ñu ko suul place bu ñu naan Abwa moom Abdoulaye mi ko jur kon ci deux mois la am ci biiru yaayam bàyyi ba dee Amina yor ko yor ko ba Sidina Muhammad gën a àddina mu am ak ndeyam six ans yaay ja génn àddina mm. parce que 4 ans la am ci Halimatu Saadiya mu indil ko Amina mu dund yaayam ñaari at muy 6 ans yaayam dee avant muy dee daf ni ko Mamadou mu ni ko naam yaay ku am kër ndey am nga kër baay nañ dem Taayif ci say nañ dem euh, Médine nga xamante ak say ndijaay mooy ñoom Abda Yaliya ñoom Mas'ud ak ñoom Habib bokkul ak ñoom Taayif la ñu dëkk ko doon sànni xeer seeni baay ak baay Amina ay doomi baay lañu. bokkul ak ñi bokk ak Amina ndey ak baay il faut leer mm. parce que dañuy wax dafa dem ay ndijaayam sànni ko xeer parce que Amina ko jur ñeent bokkal ndey ak waaye ñeneen doon ko sànni xeer seeni baay ak baayu amina ay doomi baay lañ mooy ñoom abda yaliya ñoom habib ak ñoom mas'ud waaye amina ñeent la bokkal ndey ak baay axwaluhu aswadun abdul yaguusi furayatun wa faqilatun zarqaanu jaabihimi aswad mook amina bokk ndey ak baay furaya mook amina bokk ndey ak baay wëhbu mook amina bokk ndey ak baay euh, faqila mook amina bokk ndey la laajee Seydina Mohamed ñaari tànta yu bokk ak ndeyam ndey baay la am ñaari ndijaay yu bokk ak ndeyam ndey baay la am sallallahu alayhi wa euh, sallam kon njool Makka dund ak yaayam hmm. ci yoon bi ndeyam dem na def na fa un mois fa la jàngee fett moom rasulullah yi ci six ans ya ci la jàngee féey féeykat yi njool Makka leen dàq féey ñu mën Seydina Mohamed leen dàq fett ci yoon bi la ko feebaru sukuraat dab yaay Seydina Mohamed na ñu toll ci six ans maa ci Abu Talib juróom benn at juróom benn at keroog la Amina jël loxom ba teg ci bopp doom ja ne ko Mamadou mu ne ko ne ko kullu xajin ma yitun hmm. ku ma sa dund di nga dee wa wax lu ma sa yees dana ràpp hmm. wa kullu kathirin yaf naa sa bari dana jeex ne ko waa na may tëtu doom hmm. waaye métti wu ma de mu ne ko yaay nooy la mu ne ko ndax wa xadaratu xayran bàyyi naa yiw bàyyi naa yiw wa walatu tuhran bàyyi naa doom julaat te yow mii mudu mu ne ko naam yaay mu ne ko wa zikri baaxin sama tur man Amina dina des ci àddina ba keroog yàlla yi wëlbëftu bi kenn du ma fàtte mu ne ko li ma gis man Amina gént nu wax ma ko ci jëkkër wax ma ko man Amina mu ne ko ah mu ne ko innaka la ma boosul oh. ku nu yónni ngay doon hmm. allahu akbar Amina génnaat dina hmm. umu ay mën a jël ko umu ay mën a baadal ko Abdul Abdul Muttalib moo jur Abdoulaye mu jur Seydina Mohamed mu yor Seydina Mohamed ba njol Makka deux ans la dund ak moom mm-hmm. Abdul Muttalib nekk ci sukuraat woo Abu Talib ne xam naa ne ku néew doole nga mm-hmm. amoo alal samay doom yi ñu bari la ëpp xaalis mm-hmm. waaye yaa ma doy ci yaral ma xale bi parce que sa jikko dafa baax da am ñeewant moo tax kuy joxe sa doom jox ko dénk ko ku baax xam naa ne ku am ñeewant nga yaral ma ko fii yéex a xadaafihi li janaabil ammi ammi boo ko xamul abdi manafin min wasiyati jëddin bul way de bul way jëddin musfiqin rahimi sama Maodo ni Abu Taalib la ko njool màkk bi mu amee huit ans mm-hmm. Abu Taalib nag moo yor Sidina Muhammad alaaji Paap huit ans la ko yor ba njool màkk am 49 ans 8 mois 11 jours Abu Taalib door dee kon Abu Taalib li mu yor rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a bëri que ñeneen ñi moo ko wutal liggéey mm-hmm. moo ko takkal soxna mm-hmm. moo ko dimbali keroog bi fa soxnaam bu ñu Faatumata bintu Asadin moo jur Aliyun bi mu deewee ñu gas bàmmeel ba keroog yuri nañu Rasulullah yi loolu Makka ne may leen ma ne soraax ci biir bàmmeel bi hmm. moom Rasulullah yi daal di génn bàmmeel ne dugal leen si ñu suul ba noppi sinon ma ne ko lii pour lan njool màkk ni bi may dugg kuusu bàmmeel bi yëg na ma xam na ni maa dugg ci biir bàmmeel bi waaye bi may génn yëgu ma lu tax du am droit tañ ci soxna si xal si bi ma amee huit ans laa dugg ci loxoom. moom yar buy sang moom man lay njëkk a sang. Mm. buy jox lekk man lay njëkk a jox. buy séddale man lay njëkk a jox. wuutali wu maag doom yi mu jur. bi may dugg ci bàmmeel bi bàmmeel bi yëg na ni maa dugg ma rasululaahi waaye bi may génn yëgguma dugal leen ko mu doon téere yi wax ni bàyyi bi sax yàlla yàlla yokku leeram daan wax ni ku ku dee nga bind ca bàmmeel ba Faatumata bintu Asadin yàlla mën naa dogal du yëg mbëggalu bàmmeel alaaji Pape Abou Talib yor jol màkk sallallahu keroog ba muy sukkuraat hmm. parce que tuubul woon moom Abou Talib moom Abou Talib parce que mag magi màkk ñëw na ñetti yoon ci moom ne ko waxal ak sa doom ji su fekkee daa bëgg a nekk chef de quartier nu fal ko bu fekkee dafa bëgg nekk gouverneur nu fal ko bu fekkee dafa bëgg alal ñu dajale xaalis jox ko te mu bàyyi lii muy woote ñetti téeméeri yàlla ak juróom-benn fukki yàlla ci biir kaaba gi suñuy soxla fajuwul Muhammad ibnu Abdullahi bëgg dikk ne benn yàlla am loolu mënu ne. alaaj ba alaaj ba yaa ngi may ci biir kaaba gi suñuy soxla fajuwul Muhammad ibnu Abdullahi bëgg dikk ne benn yàlla am Abu Taalib waxal ak moom loolu mënul ne mooy ñoom Abu Jahil ñi ko bañoon ñoom aboo Lahab ñoom walid ibnu muxiira ñoom xaaris ibnu nadr ñoom aswad ibnu mutalib ñoom aswad ibnu abdul yahuus ñu ko bañoon moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam abu talib woo rasulullahi sallallahu alayhi ne ko magi màkk kat lii la ñu wax nee na ñu nga bàyyi lii ngay woote soo bëggee xaalis yi jox la mhm. soo bëggee nekk gouverneur nu fal la ko mhm. def la kilifa ci réew mi te nga bàyyi lii ngay woote mhm. xamul ko Seydina Muhammad toon daf ne ko daf ne ko yaa am yaa am yow sama baay tëx sa baay tëx mooy ko bokkal sa bokk ak sa baay baay mbaa ñu bokk ndey ak baay mbaa ñu bokk ndey mu ne ko yow sama baay tëx Abu Taalib nag jàkk di ko xool dafa am xëy ba tëy xam nga tëy tëy mooy force personnalité ki ko am mooy rasulullah gi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Muhammad ni ko la wadao samt fi yamini hmm. wal xamaru fi yasaari ala tarki hada al amru ma taraktuhu abadan bu ñu jëloon jant bi teg sama ndeyjoor hmm. jël weer wi teg ko sama càmmoñ pour ma bàyyi lii ma yàlla yónni du ma ko bàyyi mukk papa allahu akbar ma gi ma ko jaaxle mais ñame ñamewuñ koo song bëgg nañ koo song faagaagal ko mais amuñu fitam parce que rus nañu abu taalib day kilifa bari ay doom yu góor ñu ay jàmbaar ba noppi waa màkka wekk soxnaam tamuy xadijatu bàyyi bu saaxo ni yàlla ko yàlla yokk yërëm amiin amiin ku nu ruus ak ku nu wekk ku nu séq nga ñoŋ hmm. ku nu ku ñu wekk ku nu séq nga ñoŋ abu taalib nekk ci mag yi màkk ñëw ni ko njool màkk taxaw ci bopp bi ne ko papa tuddal baatu seede yi hmm. ëllëg ma mën laa peleedal ci kanamu borom bi subhanahu wa taala hmm. aboo jëhlin ak ñu ñoom walid ibn muxiira ne ko ndax da ngay xemmem ba diine muhammad bii bàyyi sa diine maam yaa muhammad bii nga xam ne lii mu indi kenn xamul lu mu doon Abu Talib siggi xool rasulullah sallallahu boobu arab dañ naan sàmm seen ngor xam nga lu mu wax yonantu bi sallallahu alayhi daf ne ko su ma bañu woon yeddaange ñu ne dama saalit kon li nga bëgg def naa ko bu yàgg lawlal malaamatu aw xadaara musabbatan la wajadtani samhan bi daaka mubina su ma bañu woon yeddaange ñu ne dama saalit kon li nga naa ko def bi mooy bi wax ci la dee Abbas frère am ñu bokk benn baay ñoom ñaar Abbas ak Abu Talib ñu bokk ndey ak baay Abu Talib ñii la bokkal ndey ak baay a ah, Kaabata jaat minhu Abdu Manafin Abu Talib Abdul ak Sidna Abdullahi ak Abdu ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk ak baay bàjjan yaa ngi nii Umaymata Barata Bayda Atika ak Arwa ñoo bokk ndey baay Safiyatu baay la bokk ak moom Abbas ni Abbas ni ci lislaam la dee parce que dégg naa mu tudd baatu seede ya ñu ni weddi dafay séddale ko ñeenti xaaj dafa am kufrul inkaar am kufrul nifaax am kufrul inaad am kufrul jaxuut ñeenti weddi am kufrul inkaar kooku fi iblis weddi na weddi na kufrul nifaax mooy naafiq boo xam ni danaan gëm na te gëmul wala naafiq boo xam ni dalay tiim di jooy naan la bëgg naa la fekk du dëkk am na naafiq boo xam ni yaa booy sédd moom ngay njëkk a waaye sa defet rek la bëgg mhm. mooy kufru nifaax am na kufru inaat ak kufru jaxawut ki nga xam ni dëggal na ci xolam waaye dëggalul ci la làmmiñam ak ki nga xam ni moom dëggalul weddiwul ka kufru abi taalib moo tax sama am ni man asbatal mawta ab bul way ngay ngañ ngay way maa ngi dama bëgg noom lu ñu jàkkaarloo bu ñu jàkkaarloo loolu ma jàkkaarloog Serigne Fallou Serigne Fallou Seck mu wax ma lu Seexul Xadim wax nga wax ma lu Seex al Islam wax lu Seydil Hadji Malick wax xoolal ak li Seexna Seex Saad bu wax sama am dani man asbatal mawta mm. kookoy kan mu ne ki saxal déwug Abu Talib mm. Mm. ala sall bi ci lislaam mu ne xibrun mooy fóore ba oh. ah xibrun mooy fóore ba ay lum la ulamaa mooy ki daq jàng ay jàng mën a jàng ñi faxulul faxulati mooy kuuyu kuuy yi koy wax mu ne abbaasun ala salami mu ne abbas moo wax di abou taalib euh, si naasan ci lislaam la dee mm-hmm. abu taalib moom nag mm-hmm. moo jur si na aliyun mm-hmm. moo jur jaafar asadiq ma nga xam ne ma nga dee ci xare muktata nga am ne moom la jol màkk joxoon drapeau ba ñu dagg loxo bi mu ne loxo bu ma jol màkk dénk du tax ma bàyyi drapeau bi dagg du ma bàyyi drapeau bu ma rasulaay dénk jël kook loxo càmmoñ ba ñu dagg loxo càmmoñ ba mu ne ñaari loxo yu dagg du tax ma bàyyi drapeau bu ma sidina Muhammad dénk sëgg seex drapeau ba ñu jekkali ko moom jaafar asadiq mi ngi dee ca xare muktata moom it Abu Taalib ba ko jur moo jur oqaylu amoon ay góor amoon ay jàmbaar mu Abu Taalib bi muy dee sidina Muhammad mi ngi am 49 ans huit mois onze jours. jaafar moomu la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam toogoon biir Medine. jekki jékki xool kaw asamaan ne wa aleykum salaam wa rahmatullah. saxaaba yi ne ko bu ñu jaaxal. koy fay mu leen jaafar ma ñu doggoon loxo jekkali ko mu ngi ne yàlla remplacer ko ko ay laaf. mu ànd ak malaaka yi di doxantu biir aljana kookoy jaafar. di ki nga xamante ni moom mooy frère Seyna Ali. radiyallahu anhuma Seyna Ali moomu. nekkoon cousin u Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam faaw ñu ñëw si moom ndax bi yoon di gàddaay moom la dénkoon ngeen dénkaan mooy maamu Chérif mooy maamu Chérif ndax sallallahu bi muy gàddaay cousin am la waaye mooy yonent bi waaye moom la dénkoon olof nee ne may ku la neex dénk ki nga wóolu mu wóolu Seydina Ali karamallahu wajha jox ko dénkaan yi ko maa ko joxoon ndax al amin lañ ko doon woowee te boobu yónnee guñu ko moom rasulullahi sallallahu alayhi wasallam léegi Seydina Ali karamallahu wajha njàmbaaram ak taxawaayam si lislaam oustaz Pape Hann fitwa dafa rëy fitwa kenn xamul nu mu toll moo tax njabootam gi am fit macha allah boo la gisee ñu ne teg hmm. fitwaa gën a doy waar seen naa luyul njàmbaar ci ñoom ci moom la yam jëwam ba Sina San. Hmm. musul jaamu xërëm moom Sina Alioune. macha allah Alioune musul sujootal xërëm. Hmm. ci lislaam la màggee. ci lislaam la màggee keroog bi yàlla yónni Seydina Muhammad fukki at la am. sallallahu alayhi wa sallam. Njool Màkka ko jël ci Abu Taalib. ne ko papa da nga bari ay doom waaye bàyyi bàyyil ma jël Aliyun keroog bi Njool Màkka mënee daa xool Abu Taalib mu bari ay doom mu ni ko papa bàyyil ma jël Aliyun yar ko mu rax Seydina mu ne Aliyun ki ko yar mooy Rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam keroog bi Seydina Muhammad bi ko yàlla yónnee ab Xadija njëkk a gëm. si jigéen Aliyun topp ci. Zeyd ibnu Haarisa topp ci. macha allah Aboubacar moo ñëw position. waaye Aliou bi muy mi ngi am mi ngi am 10 ans moom Seydina Aliou moo tax nga naan nga naan Aliyun karamallahu wajhah. Mm-hmm. njàmbaar ak fit ci Seydina Aliou la yem. Mm-hmm. karamallahu wajhah. dafa daf la këf ci Abdul Muttalib Abdul Muttalib bi mu génn àdduna yonent am na 49 ans. Mhm. kon mën nañu wax ci diggante boobu. Mhm. jibul feeñu na ko. waaw wax ko Iqra. waaw mu war a woote ak yonent. Mhm. lu xew foofu. waaw. diggante Abu Talib ba mu koy jël si huit ans. ba mu muy woote ba ba muy génn àdduna la Chérif bëgg a mais bi muy woote moom yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. xam nga ndimbalal yàlla. ku yàlla dimbali. Hmm. di la jarul ngay tiit. am fit ñëpp. ko la ko yàlla yónni. ndimbalal yàlla topp ko. Hmm. moom rasulullah. Hmm. ndimbalal yàlla topp ko mais keroog bi ko yàlla yónni moom moom sallallahu alayhi wa sallam. jibril fekk ko ca xuntu ba mm-hmm. ne ko iqra ba ci maalam yaalam ne meng mm-hmm. ci résumé ko mm-hmm. xadija njëkk a tuub jigéen ñi ñuy booy dem ci jotaayu lislaam mm. wala ngay bëgg malaaka yërmande yi di ñëw faaw ngay muur sa bopp parce que malaaka du gis bopp jigéen mm. boo tuddee yàlla tudd rasulullah yi tudd baatu laa ilaha illa allah julli ci sidina muhammad malaaka yi dañuy ñëw alayhi wa sallam waaye malaaka yi bu ñu ñëwee mm. gis nga def bopp neen dañuy delluwaat mm-hmm. xadija njool màkk ma ngay liw mm-hmm. sàng ma mm-hmm. zammilu ni dasiru ni mm. mm. xadija dindi sóor ga mu ne ko anam mu ne ko dem na xadija muur mu ne ko ñëwaat na mu xam ne du jinni malaayika la dem ca warxati ibnu nawfal mu xoolal ko mu ne ko naa muus mi ñëwal ñu yàlla muusee moo ñëwal sa borom kër gi xadee ñëw ne ko xam nga lu xew waaye war xataan dafa dafa ci teg ay kàddu ni ko yelloonte woon naag ma am kàttan yelloonte woon naag ma dëgër ba bis bu nu koy génne makkatal mu karam ma dimbali ko jol xadija ne ko ah daañu ko mës a génne mu ne ko daañu ko mës a génne allahu akbar xadija ñëw sànni xool jàkkaarloog moom ne ko xaw ma lu xew waaye yow ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah sallallahu alayhi zeyd ibnu xaarisa tuub ndax zeyd ibnu xaarisa xadija la ko la lañ ko mayoon kii ko ko mayoon mooy Hakim ibnu Izaan moo moo demoon ca marché marché Okaza fa la ko jëndee woon ndax Zeyd ibnu Xaarisa bul fàtte ne yaayam mi ngi tudd Saada bintu Saalaba dañ ko sàccoon saada saada bi du saada ba mhm. dafa génnoon mhm. ànd ak war a yóbbu Zayd ci ay ndijaayam mhm. ñu agresseurs yi kar leen ñu sàcc Zayd ibnu Xaarisa yóbbu ko ca marché Okaasa euh, ku ñuy wax Hakim ibnu Xizaam moo jënd Zayd ibnu Xaarisa indi ko Makkatal Mukarram Xadija ñëw di xool si xool marchandise ya ne ko bàjjan jënd naay marchandise waaye jëndaale na ay jaam ay xale lañu xoolal koo ci bëgg ma may la ko Xadija xool xale ya xool ku am doole may ma xool xale boo xam ni kanam nga yiiwa ca mu ni ko xale bi bëgg naa ko mu may ko Zeyd ibnu Xaarisa Xadija yóbbu këram keroog bi yàlla yónnee Seydina Muhammad Zeyd ibnu Xaarisa moom itam tuub Seydina Aliyun tuub Seydina Abubakar tuub mm. mais dafa am ñeneen ñoo xam ni mm. yeneen kilifa mm. Abubakar la ñu ni yow daal comme que waa ji na la doy que comme yow sa sa yow ni ma la wóoloo nga ne ma man day Alaaji Mbaay mi wóolu naa ko man ah Assane kon wóolu nga ko man wóolu naa ko ah Abubakar la ñu ni yow daal comme que waa doy na la doy nañu mooy Sumay ibnu Awfin wa Saadun wa Zubayrun wa Talaatun ka Osmaana ñoom ñii kenn ku ci ne Abubakar nga ni comme que waa doy na la doy nañu xaaral maa ngi ñëw kon naa leen tuub na dama koy résumé l'islam ñëw na mm-hmm. ña ngay làqatuy julli di nëbbuy julli ña ngay làqatuy julli di nëbb gis nga màkk gi mu juddoo nangu màkk màkk gi mu juddoo yaroo màkk màggee màkk 52 ans jëm 53 la am ñu génne ko màkk mais daa daa ñëwaat nangu màkkatal mukarram moom rasulullahi sallallahu wal fatxu jaaka hmm. yow ma fatxika makkatan hmm. Hmm. wa nasru fi l ahzaabi xad waafaaka hóodun wa yunusa min baha kata jammala wa jamaalu yusufa min baha isanaaka sallallahu min baha isanaaka sallallahu alayhi wa sallam yawma fatika makkatan wa nasru bil a'dabi qad waafaka hudun wa yunus min baaka tajamala